waa kay mbokk yi xam nga ñun li ñu jàngoon ci eh, taarix moo di nii eh, abu taalibin eh, faatewaalewul faatuwaalewul lislaam loolu lañ ñu jàngaloon te it tegtal ya moo xam nga jëlee nañ ci Saad ibn Musayyab radiyallahu anhu mu jële ci baayam mu wax ni eh, bi nga xamante ni bi eh, Abu Talib nekk na ci xar-xarle maanaam c'est-à-dire mi ci sukkuraat war a wujji borom bi subhanahu wa taala eh, ku ñuy wax Abu Jahlin di mbokkam ak Abdullah ibni Abi Umayya moom tam di mbokkam dañ ñëwoon seet si ko ci tawat ji biñ ñëwee fekk nañ fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul fàtte ni Abu Talib moo mujjoon a yar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw baayam bii di eh, Abdul eh, Abdul Muttalib moom eh, Abu Talib di maam ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag coono bi nga xam ni Abu Taalib doon na ko sonn ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam tegewutoon ci kaadaru gëm lislaam loolu tamit foo ñu bàyyi ci xel daf ko tegoon rek ci kaadaru jëfandikoo ndénkaani way jërëm Abdul Muttalib ndax laata moo faat la ko dénkoon ni ko sa doomi mbokk mi na nga veye na nga sonn ci moom na nga ko toppatoo kon moom Abu Taalib danoon da doon doxal ndigalu papaam Abdul Muttalib moo tax ba doon sonn ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam Euh, léegi itam gis naa ñu bind fi nii euh, Fatimatu euh, bintu Asad nga xam ni radiyallahu anha nga xam ni moo nekkoon yaayu Ali ibn Abi Talibin karramallahu wajha lan moo tax bu fekkente ni bi Abu Talib nekkul jullit naka la Fatimatu bintu Asad mën a nekkee jullit moom di sëy ak moom loolu tam bu ñu gëstuwaatee taarix dañu gis ni bu fekkee fàttali nañ jàngan euh, Fatimatu euh, bintu Asad bi muy sëy ak Abu Talib jiitu na lislaam di ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam maanaam jiitu na nubuwatu rasul sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy taxrim di aramal sëy dox diggante jullit ak yéeféer ma nga amee ca Madina te sëy seen seen seen sëy moom ña nga ma nga tàmbale woon ca Makka diggante Abu Talib ak Fatimatu bintu Asadin xam nga ca euh, sulhul Hudaybiya ci lañ tere ci lañ xaraamal jullit bu jigéen di sëy akub yéefar wala jullit bu góor di sëy akub yéefar bu jigéen maanaam ginnaaw gàddaay gi la te ñoom seen nekk jiitu na gàddaay gi loolu mooy li ci mat a bàyyi xel lool euh, beneen tom bi nga xam tam euh, bëgg naa ci waxaat mooy dama dégg tam dégg naa benn audio ci euh, mbokk bi leen def exposé bi mu wax ni Abu Talib li mu li mu daj ci yenente amul benn saxaab bu ko uh, daj loolu tam man gëm ma loolu ndax it jëlal rek doomam ali ibn abi talibin karamallahu wajha jaay na nangoon naa jaay bakkanam ngir ngir sauver yonente bi alayhi salatu wasalaam ak appliquer ndigalam jëla ni talhat ibn ubaydullah ca gazwa ba mu daj ngir défendre yonente bi alayhi salatu wasalaam tant d'autres exemple yu am na fi yoo xam day wane ne saxaaba yi dañ doon jaay seen bakkan ngir sàmm yonente bi alayhi salaatu salaam kon ñoom ni ñu sottoon yonente bi ak li mu leen jaraloon nu ko mel Abu Talib doxewu doon digganteem ak doomam bii di ak doomu bokkam bii di yonente bi alayhi salaatu salaam donte ku ko bëggan la ku ko soppan la ndax jikko yu rafet ñu nekkoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ah, mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaare tey jéggalu xam naa démb biñ pare ci émission bi dafa fekkoon ñu xawoon na jàpp ma taxoon na ñëw ñëwaatu guñ woon ci yenn temps li xaali ci jéggalu bu baax waaye kii may indaale audioom eh, di wax ci ne eh, li wax ci Aba Talib ci ni ko taarix indee noonu lañ ko jàngee woon waaye effectivement loolu dama koy nangu ndax man mii aussi noonu laa ko jàngee woon waaye ci suma fin ojo maa ngi wax te nañ mbañ di toppee noonu liñ ñuy wax rek ñuy jàppee ko noonu man noonu laa ko jàngee woon waaye wet weddiwaat naa suma bopp gannaaw bi ma defee yeneen baxus Euh, xadis boobu nga indi tim yaakaar naa ne xëy na dangaa dégloo gu tonu audio bi waaye xadis bi boo gisee moom def tanaqut ci boppam tanaqut maal maal euh, Qur'an moom xadis boobu noonu ndax boo gisee euh, xadis bi Musayyab mi ko nettali tuubewul Màkka Madina la tuube Musayyab ba ka ne ba ka di ka nettali aussi Xadiija ba muy am bokkutoon ci ca nekkoon ca biir su fekkee ne moom mi ko nettali xam na ci dara dañ ko koo wax kan moo ko ko war a wax ñu nekkoon ci biir kenn moo ko ci war a wax ñu nekkoon ci biir yonent bi waxu ko ko kon ku ko war a wax baa Jahlin la war a doon wala mu doon Abdullah ibn Abi Umayya ñoom ñaar ñëpp ay yéefar lañu woon kon loolu moo tax lool duñ ko nekkul lu ñuy eh, nangu beneen bi muy baat bi nga xam ne moom lañu wax ne ci xadis bi moom la yonent bi sàkku woon ci Aba Talib mu wax ko pour mu mën ko ràmm ëllëg yowmal qiyaam baat bi mooy laa ilaha illallah faqat kese boolu ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa te ñëpp xam nañ ne duxul islam du taxaquq ci kalimatu la ilaha illallah donc il faut an nutqu bi shahadatayni ci la dugg l'islam di e, taxaquqee kon loolu aussi dafay tanaqut euh, euh, ak mbir mi kon loolu day wone ñàkk wi rek xadis bi waaw ak yeneen ak yeneen rek boo liiree sama audio bi danga ko ci dégg pour bañ a gën a guddal beneen bi ci li nga wax ci soxna si Fatima Bintu Asad kooku dama ciy d'accord ak yow dama ciy d'accord ak bu baax a baax ndax euh, li ñuy takk sëy ba boobu euh, l'islam ñëwagul te bi ñuy bi abatal di faatu fekk na araamala guñ loolu d'accord naa ci ak yow beneen bi ci des muy Aba bi ñuy wax ne am na ñu xaw ma ñu sonn ñu gën a xër ci moom ci yonent bi wala bokk ñu gën a sonn ci moom wala xaw ma noo ko waxee eh, ci saaba yi boo lim ci Aba eh, Ali ibn Abi Talib man loolu duma ci ànd ak yow xam naa ne Ali ibn sax moom su fekkoon moo taxaw kanamam gën a ko yaa gën a sonn wala yaa gën a xër sa papa ci yonent bi mu weddi gëm naa ne dinañ la weddi ndax yonente bi ba Aba Talib e, boo ko Aba ba ko yonente bi jaral lu ne boobu diina dafa tumuranke woon diina dafa néewoon doole diina dafa amutoon diina amutoon tumuranke néew doole e, neexanoogut booba la jaraloon lu ne aba taalib jaraloon ko léppam ah, ñeneen ñi ngay wax ñëpp euh, xam naa bi ñuy xam seen ak euh, seen ak euh, défendre diine yenn défendre yi ñu xam ci ñoom ci l'histoire boo fekk na diine taxaw na taxaw goo xam na gi moom wuute ak bële daal waaw wuute naag bële waaw parce que boo seetloo daanaka ba Aba Talib faatoo rek jamono jooju eh, ci lañ tuddee woon daanaka moom lañ tuddee atum xusni bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ci jamono jooju daanaka ci lañ ko digal pour mu gàddaay ndax xam nañ ne lam mënoon ca moom foofu ca Màkka kenn mënu ko ci moom Ali na Abi Talib ma nga woon foofu waaye mënu ko woon ci yonente bi sallallahu alayhi waaw donc kon Abu Taalib fa mu féetewul yonent bi ngëw mën a saxaaba mas na ko mën na ko faa féete wala mas na ko fa féete waa jërëjëf euh, imaam Yaxya ñu ngi lay ndokkeel mais ñun li ñuy wax xam nga du cadre xam na ko wala xamu ko cadre gëm na wala gëmul yaakaar naa loolu mooy débat bi bàyyi xel loolu gëm na wala gëmul tudd na baatu seede yi wala tuddul baatu seede yi mais de question ko xam na ko wala xamu ko déggoo li ma la wax waa màkk ñoom ñëpp xamoon nañ ko xamoon nañ ni yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bii yàlla moo ko yónni waaye taxawul dañoo taxawoon di ko combattre ñoom ñëpp di xeex ak ak ak moom. Hmm? jëfam yi jëfu ku gëm la wone jëfam yi yëpp jëfu ku gëm la wone su fekkente woon ni moom wone woon na fan lay mën a protéger yenente bi bu boobaa. waaye waa Quraysh bu ñu ñëwee di jeebaane yenente bi ci moom parce que ñu jàpp ko seeni kilifa c'est parce que woneewul imaanam muy xam seeni plan muy xam nan la koy dévier mu jaral ko sacrifice ñu jël leen def xisaar ci ñoom dañuy lekk ay xob protéger risaala bi ndax saahibu risala moomu lay protégé ngeen bëgg a wax ni kooku yéefeer la yéefeer dina loolu dina ko jaral loolu aya am na saar yoo xam ni dañu commencé wàcc eh, makkatal mukarrama men aaya bi fan la wàcc loolu bi fan la wàcc loolu moo gën a am solo waaw kon nag mbokk suñ mbokk yaxyaa yaa ngi bëgg ñëw nag comme nanga nga ni Abu Lahab moom tam waajur la ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te tabat yada abi Lahab wàcc na te yéen da ngeen a wax ne yonente bi waajuram du dem safara kon que yéen a ngi dugg si yéen yéen a ngi ñëw de yow yaa ngi xam naa ne moom yaa ngi gën leeral texte bi sax Abu Lahab boobu nga tudd de yaa ngi gën a wane leeral texte bi que ni kon yonente bi moom am na waajuram boo xamante nii ma nga safara ndax xam naa ne Abu Lahab moom jigéen a yonente bi bu baax a baax loolu kenn yonente wu ko beneen bi mooy utbata utba ba ñëpp xamoon nañ bi ko waa Màkka yónnee pour ma dem waxtaan ak yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi bi waxee moom ba pare ah lan la wax dafa dem këram xamoon na ni yonente bi yàlla moo ko yónni di <laughs> waaye est-ce tax na mu gëm ko taxul mu gëm ko kon waa Màkka dama laa bëgg a wax ni la ñu ci bëri xamoon nañ ni yonente bi yàlla moo ko yónni waaye taxutoon ñu gëm ko kenn wax buñ la ne waajuram du dem safara loolu mooy leeram ci ñu mu jaar loolu waxoon naa la ko ci kaw moo tax ma jox la exemple boobu exemple boobu lu tax ma jox la ko xaabil ak haabil bu ngay jël di leen gam-gamloo moo tax ma jox la loolu alpha yow tamit pour turne wax bi wax boobu kay ci yow la dem yow miy jël xaabil nga def ko maamam dama la ne mais abu taalibin abu lahabin <laughs> lan la def loolu laa la wax nga xam ko waaw il faut nga xam ni leeru yenente alquran ne wa taqallubaka fi sajidin loolu may leeroon musul jaar ci kuy sujootal xërëm fi mu ne nii maa ngi ci xat-xat mais dinaa ñëw ak leeral yu may pointé yépp waaw yow dama la ne leeru yenente yàlla Muhammad jaarul ci ndigg boo xam ne yeefeer la Baba Jaw buy ne maamoom yi yëpp ajjana la ñuy jëm foofu la bëgg a wax fu ñu wax ni leer bi foofu la jaar xanaa leeram dafa jaar ci abu lahabin leeram dafa jaar ci qaabil famille njabootu yene eh, yenente yàlla aadama bi nga jël qaabil di ko gam-gamle naka la ñu fonde kaabil ci lan la mujjee ak ay njabootam jaamu xërëm sa fan la commencé vraiment asalaamaaleykum wa rahmatullah waa majma wa ruja al xaq wa dahaq al batin ñu ngi leen nuyu di euh, xam naa ne ma am benn laaj bu ndaw rek mooy dugal damaa nekk ci yoon di ko laaj sax Alpha Sall euh, damaa dégg fii mu ne euh, Aba Talib mata kafiran euh, ma koy laaj man kafara aw kan la weddi waaw hal kafara billah aw kafara bi rasul alayhi sallam loolu daal bëgg naa mu indi ma si ay leeral rek jërëjëf asalaamaaleykum beneen usub bu mooy saxafa alxadis ala anna abu lahabin yuqaffaf lahu alazaba kulla yawm al ithnain Euh, euh, bisub bu jot dañ koy wàññil mbugalam waaw ndax rek euh, kontaan gu mu kontaanoon ci juddu bi Yunus alayhi salaam gën a àdduna léegi nag bu ñu xoolee Abu Talib ak ñu mu mel ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaw est moom awla bi zalik beneen si topp kuy faatu taxaw si wetam naan ko waxal laa ilaha illa allah est-ce que ñàkk boo xam googu laa ilaha illa allah ndax dafa mu nekk yëfër ñun yaakaar naa ne miin nañ loolu euh, sa mbokk nag ci sukuraat nga tim ko naan wax laa ilaha illallah muy wax la neen loolu laa ilaha illallah ndax kooku bu faatoo ci xaal boobu da nga koy atte yéefar wala déet beneen bi si topp nit moom buñ koy seedal yaakaar naa ne ay doomam ak njabootam ñoo gën ci yeeyoo di ko mën a seedal te sax na ci Ali ibn Abi Talib mu ne euh, sama baay ak sama maam euh, Abdul Mutalib mosu ñoo sujjootal xërëm bi ñuy dee euh, maatu euh, maata muslimaan yi waaw li mu wér na. sëñ bi yow ñu ngi lay nuyu di la ziyaare yow nga ne mosoo gis fenn fu taarix saxalee na Aba Talib wax ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yow yaakaar naa saaba yi boo ci doon lim ci taarix leeral ne wax nañ ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah boo leen doon lim yaakaar naa doo bëri la de yaakaar naa doo bëri la li ngay gis ci taarix li li muy wax rek ci saxaaba aslama jébbalu na jeex na aslama jébbalu na jeex na mais nit ki mën naa jébbalu mën naa jébbalu te doo du at talaffuzu bil bi shahaadatayni ak nga dégg ko kooku duñ euh, bokkuñ nit ki wax euh, ñaari kii yi euh, seede yi ak nga dégg ko loolu bokkuñ parce que nit ki mën na koo wax te yow doo ko dégg wala keneen di du ko dégg ku mu ko dégg waaw ah, mën na ko dégg kon te Euh, li taarix feeñal ci loolu yaakaar naa ci saxaaba yi bëriwut ndax boo ci lim boo tuddee Omar ibn Khattab ak ñu mel ni ñoom lu bari ñi ci ëpp rek dangay dégg ñu ne tuub euh, aslama ama nangam wala aslama euh, ama nangam yooyu rek ngay dégg waaye ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñoom ñëpp ñu bëri ci ñoom ñoo ci bokk yem amul kenn ñu bëri ñoo xam ne taarix feeñal na ñooñu wax nañ baat boobu waaw euh, jébbalu laal jébbalu lañ te ab euh, aba ci boppam seede na tudd na baat bi nga xam ne moom la yonent bi soxla woon pour mu tudd ko loolu abbas seede na ko wax na ko yonent bi sallallahu alayhi kon nag xëy na su fekk euh, su fekkee ne ba muy ba muy tuub wala ba muy dugg ci lislaam ka mu concerne mën na dégg loolu waaye ka mu concerne mën na ko bañ a dégg waaye jébbalu na daal jébbalu na loolu moo ci gën a wóor beneen bi si topp moom mooy euh, sax na si kutubu sunna euh, yu bëree bëri euh, ahlu sunna wal jamaa si seen téere yu bëree bëri kenn Aba Talib maata musliman waaw lii moom lu lu wér la. léegi nag comme que masala boo xam ci masala xilaafi la ñii waxee nañ nii ñii waxee nañ nii. yaakaar naa ne dañuy jël li gën a li gën a oyof waaw daal jàpp naa ne ñu gëm ne Abu Talib mata euh, musliman waaw moo gën fuuf nag euh, ñuy weg wegi naan Abu Talib mata kafiran ak fi mu jaar ak rasulullahi sallallahu alayhi wa euh, jàppale ko ba ba ba ba wooteem bi àgg fi mu àgg ba comme ni ko Alioune waxee rek sama baay laata muy génn àdduna rasulullah sallallahu alayhi wasallam gërëm na ko te kat ah, laqad radiyallahu anil mu'minin yéen sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa ne du gërëm ku dul jullit waaw yooyu daal xam naa ne yu jar a uh, bàyyi xel la waaw donte nag masala boo xam te masala xilaat yi loo xam dañ ko fa dañ ko fa fekk mu yàgg lool nag waaw ku nekk nag sa sa sa mawqif lay am waaye nag nga la waaye nañ ci nañ ci nañ ci nañ ci ragal yàlla bàyyi ci xel gën a def ay baax si yaakaar naa ne daal moo ëpp moo ëpp njëriñ di leen jaajëfal rek uh, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw mbokk mu tedd mi ñu ngi lay ziar maanaam li ma bëgg a wax rek mooy duggul ci diiney lislaam duggul ci diiney lislaam mu ngi génn eh, àdduna ci diine ji nga xamante ni moom la waajuram mu nekkoon mooy Abdul Mutalib loolu laa la bëgg a wax rek maanaam gëmatoon lislaam waaw baal ma ci audio bi dafa dagg mais su ma la nee lislaam mooy lislaam bi yonte yàlla Muhammad woote yonte bi bi muy woote ci kanamam Abu Talib duggul ci diine ji yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi woon doon ko saxal. Euh, Cheikh Alpha ñu ngi lay nuyu di la ziar yooyu bu baax a waaw léegi da ne Abu taalib duggul woon ci diine ji waaw ah, léegi luy firnde ne Abu taalib euh, duggul woon ci diine ji wala da ngaa bëgg a tegtaloo ne euh, ñàkk waxam laa ilaha illallah boobu euh, ci kanamu yéen sallallahu alayhi wa sallam mooy firnde ne duggul ci diina ji waaw ah, ndax loolu nga bëgg a tegtaloo wala déet xam nga dafa am ñaar yu yu bay yu may bañ ñu boole ko mooy man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illallah daxalal janna waaw waaw képp koo xamante ni si sa mujjantal wax euh, dafa nekk laa ilaha illallah da dangay da ngay dugg àjjana bokkul ak man kaana axira kalaamihi laa ilaha illa allah maata musliman déedéet ndax am na ñoo xam te ni si ay muslim lañu te nekkul seen axira kalaamihi la ilaha illa allah kon bu ñu jël loolu sukkandiku si ba ne Abu Talib nekkuloon woon jullit ndax waxul woon laa ilaha illallah wax naa ko wax naa la ko sànq sama ba sa kaw bëri nañu seen i mbokk di faatu ñu tiim ko di wax ak moom naan ko waxal laa ilaha illallah mu lankee ne du ko wax di wax leneen lu bokkul ak laa ilaha illallah léegi léegi sax mu tiit lool ndax kooku dafa naan maata waaw ah, bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaare yooyu waa di wax rek yow muy laaj suratul iman yaakaar naa ne di tax nga koy laaj ci lool lañ lay tontu direct rek mooy da gis ne nit ki ay jëfam rek bu nuñ cee xamee na ku gëm la wala nangam il faut mu nutu ko bi sahaada tey ne wala yooyu waaw yonent bi da wax ne su ngeen gisee koo xam ne kii ma ngay taxoog jàpp fashhadu lahu bil iman loolu de acte la jëf la waaw jëf la kon jëf mën nañ cee xamee gëm yàlla waaw nekkul na rek parce que ki nga xam ne euh, euh, shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kooku du sàtt ñëpp dégg ko waaw maa ngi dégg ngay wax naan euh, Abu Talib waxul loolu nangam yow wala boog amutoon seede ba mu koy wax fan ak amut seede yow Ali ibn Abi Talib bi muy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kan mooy seedeem Abubakar fan nga gisee ba ba muy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu muhammadan fan kan mooy seedeem yooyu yëpp dañ naan aslama rek jébbalu na jeex na waaw mais bañ koy wax kam na la concerne ko ko war a dégg dégg na ko Aba Talib aussi ba mu koy wax kam concerne la concerne ba mu ko waree ko ko waree dégg dégg na ko kantaaka nag toog di jël ay seede wala nangam loolu li koy firndeel kay mooy jëf ji ak wax ji te waxam ak jëfam yépp wane na jëfi jullit la waxam wax wane na waxi jullit la waxam waxam na euh, waxi jullit la jëfam wane na jëfi jullit la kon loolu la li ngay xiyaas nag naan kon tubaab yi danañ dëkk ak euh, yonent bi tubaab yi <laughs> yow na gëm na kon Aba bi yéefar la euh, yéefar la moo tax ngay wax loolu man goo mën a Aba bi yéefar la moo tax ma gëm ne moom ak yonent bi danañ mën a <laughs> bokk nekk foofu comme niñ bokk nekk fi waaw kon nag bul xiyaas ñaar yooyu parce tubaab yi ñoom gëmuñ yàlla euh, gëmuñ gëmuñ yàlla ba tax hadis boobu di di di valable si ñoom man Aba Taalib dama gëm ne gëm na yàlla euh, tuub na euh, dugg na ci lislaam moo tax ma gëm ne xadis boobu dana valable ci moom ah, jërëjëf euh, beneen bi si topp dégg naa nga wax ne jëf yi jëf yi mu jëfal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp buñ ci sukkandiku ba ne ab jullit la woon wala ab mu'min la woon waaw ndax ñoom seeni jëf ne ko kenn du ko considéré euh, comme ni nga joxe exemple ci ci ci ci euh, tubaab bi nga dañuy yor orphelin yi euh, ndax buñ faatu dañuy dëkkaale yi sallallahu alayhi wa sallam waa léegi nañu xool Abu Lahab waaw nga xamante ni si moom waxuma la jëfalul dara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye bi mu gënee àdduna bis boobu kontaan gi mu kontaan ba góoreel jamam bi rek waaw mu nekk bisu altine bis boobu rek su borom subhanahu wa taala dina ko dina ko wàcceel mbugalam waaw du ko si mbugal waaw comme ni ko euh, Abbas gisee ci gént euh, ñu um, bisub altine mbugaluñu ko mu laaj ko lu xew mu nekk bisub altine man dañ may wàññil sama mbugal kenn du ma mbugal waaw muy lu wér nag waaw léegi bu fekkee ne Abu Talib ak fi mu jaar ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yar ko ñu koy biñ koy biñ koy def muhaasara mu ànd ak moom dem ci àll bi nekk moom foofu fi mu jaar ak moom ak yëpp waaw ndax moom du awla ala dalik aw awla min dalik euh, ndax moom gënul la yey ci lii waaw ndax moom gënul la yey ci ci ci teggil ko mbugal wala sax dugal ko àjjana directement que abu abu jahal déedéet foofu dañ la wax mbokk baal ma dañ la wax ni la toogal ci wetam ngay wax laa ilaha illallah toogal ci wetam ngay tudd tudd baatu baatu seede bi ndax xelam dem ci mu tudd ko waaye waxuñ la wax ko mu wax laa ilaha illallah ci li ma jàng sa mbokk bi génn àdduna nga toog ak moom dañ la ne del tudd baatu seede yi parce que dañuy bañ nga wax ko fekk mu waxu ko ñu foog ni dafa bañ comme li nga xam ne yonte bi loolu la wax Abu Talib waxal baatub laa ilaha illallah moom waxu ko donc loolu mooy problème bi bu ñaar yooyu bokkul ñu de ay sew sew la. waa léegi Cheikh Alpha léegi bu bu ko waxul nag wax leneen lu bokkul ak laa ilaha illallah nooy atee kooku. Euh, mbokk mi li ma la bëgg a wax moom mooy Abu Talib moom lam yàkkun musliman moom la ne lam yàkkun musliman nag duggul ci diine ji yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon woote loolu moom lu wér la dugg ci. waaw nag deena di jullit moom deena di muslim parce que muslim jiitu na fi yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente yëpp loolu lañ doon oote su fekkee dafa dee ci diine yonte yàlla Ibrahima dama koy nangul Seydina naa li mu wax waaye nag deewul ci diine ji yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi asalaamaaleykum waaw sëriñ bi naa si ñetti audio yi njëkk yi dégloo dégg naa ci nga dama ñëw pour lëntal maa ngi ñaan yàlla mu leeral parce xam naa ne su fekkee dama ñëw lëntal tam gaw ma yow nga mën a leeral ndax dama ñëw ak suma xalaat bu ma gëm te rafet naa njott na yow danga da ñëw ak sa xalaat bi bi nga gëm yàlla mi xam lii dëgg moom yàlla leeral ca jamono jëm ko soobe li ci des yaa ngi naan téere bi ngay référence la ca nekk mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah loolu la yonent bi wax waa taalib waaw téere yi mooy yërëgum yépp nag man gisuma ci muhammad rasulullah xam naa ne daal téere bi ngay référence o téere bu xarib la téere boo xam ne bii daal xam naa nekkul téere boo xam ne bi téere bu siiw la wala boo xam ne xam naa sa téereb sëriñ lay doon wala téere nangam rek boo xam ne bi la tax ñeme woo tudd daal jaaxal na ma ci ndax ba nga ne ba téere bi may référence rek mënoon ngaa tudd téere turu téere ba rek dimbale nit ñi ñu dem ci waaw boobu benn la beneen bi ci des ngeen ne jumhurul ulama ñoom ñëpp rek dañoo d'accord ne aba talib matam mushrikan aw kaafiran xanaa mooy jumhur ulama yi nga yi nga yi nga ñi nga tuddee jumhurul ulama ñoom ñoo d'accord loolu waaye yaakaar naa ne man mi xam naa jumhurul ulama yoo xam ne nee nañ mi mu'minan kon bu bu fekkee ne ne nga boroom xam-xam yépp a wax loolu foofu day doom njuumte parce que fi ma jëlee ay boroomi xam-xam lañ te seen nombre dañ leen tuddee jumhur ñu bëree bëri lañ ñu bëree ay alaaf waaw boobu ba tey mi ngi noonu beneen bi ci des mooy alhamdulilah gi ngay wax ne ba ko Aba Talib di wax euh, lislaam ñëwagul woon loolu wane ne ñoom waa Màkka dañoo am nañu ci topp toppoon millati Ibrahim alayhi salaam kon fekkee na gëm nga loolu war ngaa gëm ne kon Aba su fekkee ne xadis boobu ngay ngeen gëm nu dëgg la te man xadis boobu gëwma ko te mu wax na dee na ci millati ibrahim kon ke war ngaa xam ne kon aba taalib jullit la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam millate commencement euh, bi'sa commencement bi'sam diineem wuute wutoo nag diine ibrahim alayhi salaam sa Makka diineem jotagutoon a wuuteeg diine Ibrahima alayhi salaam diine diine baayam Ibrahima alayhi salaam te Abdul Muttalib fii la woon boo xam ne bi ci diine jooju la tënku woon kon Aba Taalib bu ne ci dee na ci diine jooju kon jàppal na kon dee ci diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi ba tey kon kay kon yow. dëggal nga ne kon Aba Taalib kon maata musliman ci sa biir wax yi am naa su ma de am fekkee am naa jot pour déglu si yeneen audio naa ci temps su fekkee na yàlla dogala ko te muy noonu rek. ne li ma la bëgg wax pour nga xam ko. talkiin yéeféer bi kalimati laa ilaha illa allah ñëwul xanaa yow da ma laaj la leen ne tey laa xam ne yow danga ñàkk xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lan tënku si sa kaw téere sëriñ lu tax ma wax la lool danga nga xam yenente bi loolu mooy alquran lan mooy tanzil ak inzal ci ulum alquran lan mooy tanzil wa inzal mal farqu baynahuma pour nga xam ni yow bu fekkente ni nga yaakaar ni alquran bu ñu mu tàmbalee di wàcce ay aayaat di ñëw yenente xamu ko da nga réeree yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga ko bu baax a baax a baax a baax xamuloo ko xam nga aaya bi nga indi muy laataa ji doo xaman yominu billahi yomil axiri lii mu ngi suratu mu te loolu mu ngi wàcc madinatul munawara mu jàddala madinatul munawara la wàcc mooy li ma la wax rek parce que l'islam li ñuy wax nii bi l'islam di su commencé la yow nag da ngay boole fi mu ne nii bi lislaam di ko commencé ak ba fin wu lislaam ak ci digg lislaam ñun fi mu ne nii li ñuy wax màkk lañ tënku nekkaguñ Madinatul Munawwara ay bi nga indi mu ngi suratu mu jaadala te suratu mu jaadala Madinatul Munawwara la wàcc loolu xam nañ ko te bu dul dara sax jullit yi bu ñu doon xeex seen mbokk yi dong lañ doon xeexal ñu bokkal baay ak seen doomu baay yeek seen ñoom kese ak ak ak ak doom ak papa ñoo fa ne woon di xeex ñoom rek ñoo ñoo jàkkaarloo woon di xeex donc loolu xam nañ ko ah, yonte yàlla xam ne bi muy jàpp Abbas kay boobu Abbas lanam la donc yooyu ay mbir la yoo xamante ni fi mu ne nii yow dama jàpp ne yow yaay mélangé ñaar yoo xamante ni bokkul parce que aay bii nga indi jotewut ak li ñuy wax dara kii ma nga wàcc ci Medinatul Munawwara te ñun ci Màkka la ñuy wax. ne réere nga yenente bi réere nga ko xamuloo ko moo tax ma ne la ki xam alquran lu ñuy wax tanzil ak inzal mal farqu baynahuma wax ma ko lan mooy tanzil lan mooy inzal boo tontoo loolu rek wax bi faranku laayoo waaw. waaw sëriñ sëriñ bi jërëjëf waaw eh, yow ci sa question boobu ngay laaj ak sa tubaab beeg yooyu yëpp yow loolu moom eh, wóor na leen la kooku eh, dugagul ci lislaam ba pare di jëf jëfi lislaam kooku day wuuteeg man ki may wax. man ki may wax daf ma wóor ne dugg na ci lislaam ba pare di jëf-jëfi lislaam di wax waxi lislaam parce que yéen fi ngeen concentré wu mooy ci xadiisu musaddad boobu ngeen concentré wu ak xadiisu Saïd al ngeen concentré wu ñaari xadiis yooyu man moom laa gëmul na dafa wér te yéen seen base seen masdar ci xadiis yooyu ngeen ko teg man jiitu naa xadiis yooyu suma masdar ak suma baas dafa jiitu xadis yooyu cest à comme man li ma gëm moo di ne xadis yooyu ay wax la amut li am mooy Aba Taalib gëm na yàlla bu yàgg di jëf li muy jëf xadis bi luñ fi xadis siyaasi la boo xam ne dañ ko waa Banu Umayya ci gàttal ñoom ñoo ko jël dugal ko def ka fi pour jéem a ñaawal euh, deru bàyyi aba taalib bi nga bàyyi alim ne abi bi nga xam ne moom lañ am ak problème ci gàttal loolu la yow kook ngay wax jëfam kenn du ko reconnaître parce que yàlla man nag ki may wax dama gëm na gëm na yàlla ba pare te dépendre ma ci xadis yooyu ngeen di wax ndax xadis yooyu yëpp dañoo tanaaxut ci biir xadis bi dafa tanaaxut moom ci boppam xadis yi ñaari xadis yi boo leen boolentee dañoo tanaaxutante seen bopp aaya yi nekk ci biir xadis yi dañoo tanaakul ak xadis yi kon loolu yëpp boo ko gisee moo dina xadis yooyu bokkul sax ci loo xam dafay niroog lu wér waaw mbokk mi ñu ngi lay nuyu di la ziar yaakaar naa Cheikh Mansour la waa donc lii sama dalil ak man naa ko waxa ilmul yaqin aynul yaqin xaqul yaqin ke ni Abu Talib maata kaafiran lam yakun musliman loolu man maa ngi ciy taxaw te duma ma ci dellu ginnaaw sama dalil mooy que ab jullit moom buy génn àdduna doo ñëw naan ko waxal euh, kii euh, euh, waxal laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tuddal baatu seede yi déedéet dañ la wax sax mën nga toog ci wetam di wax laa ilaha illallah te li ñu jàng mooy Abu Taalib waxu ko waxu ko duggul ci lislaam wax nañ ni sax dafa ne yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay bëggoon naa ko sax dugg ci lislaam ngir def lu yow lu la neex waaye damaa bañ ëllëg ma génn àdduna sa mbokk yi di la ñaawale saw papa dafa ragal ba tax mu ñëw tudd baatu seede donc wax na sax loolu kon kay donc ñun am nañ yaqin que ni Abu Talib moom duggul ci diine l'islam diine bi yonte yàlla Muhammad wax nag laa nekkoon laa wax ni dugg ci waaw kon nag si naa leen fekkee dafa xam ni nee na nekk muslim kooku weddiwu moo ko parce que fekkee diine Abdul Muttalib diine suñu maam Ibrahima Ismaayila la donc loolu mën na nekk waaye di yonte yàlla Muhammad woote moom dugg ci bi muy génn àdduna moo sama dalil aaya tafsiru razi faxru razi demal foofu man waxuma la saar bi fii la wàcc dama la ne lan mooy tanzil ak inzal ci ulumul quran bu ko defee rek ñu xam lan la ñuy wax gannaaw yaa ngi wax ne aaya bi fii la wàcc fekk yeneen te xamul bu koy talkiin kalmatu la ilaha illa allah fekk et man dama bëgg nga indil ma Euh, lan mooy inzal ak tanzil ñu xam ko ndax yenente ñu xam ndax dina woroo ak boromam ndax mais loolu yéeme na ko euh, lan loolu mooy yow yaa ngi daganal yenente bi li nga xamante ni yow xaraamal nga ko sa bopp est-ce que ki nga xamante ni sax moom ab yéeféer la nit dina dem di ko talkiin kalmatu laa ilaha illa yow doo ko def man duma ko def keneen di ko def ngeen bëgg a wax ni loolu la yenente def ab yéeféer mu koy wax yàlla bëgg kufru abu taalib yenente bëgg a imaanam yàlla waroo ak yenente bi loolu sax est xelu na ah mbokk yi loolu xoolal firawna bu mu demee ba mu nekk ci diggante dee ak dund waaye mais gëm na gëm na wax na ko mais yàlla daf ko ne fu mu ne nii diggante bi nga nekk nii walaabalatul balatul loolu su fekkente ni jamonoy na la yàlla aaya dina ñëw mu leeralaat ni nag léegi nag ki nga xamante ni def na loolu rek dina wala valable ci moom loolu yi faut nga comprendre ko voilà. waaw Cheikh Mansour ñu ngi lay nuyu di la siyaar yaakaar naa Cheikh Mansour la donc yow andil ñu fenn rek fi wane ni Abou Talib moom dugg na ci lislaam bi wax na baatu seede yi ni ko Seydina Bakar Siddiq waxe ni ko Seydina Omar waxe ni ko Abbas waxe ni ko Hamza waxe andil ñu fenn foo xamante ni rek moom wax na ko ni moom dugg na ci lislaam wax na ko bi ñuy nekk màkk doon na pratiquer doon na ànd ak ñoom dem di julli doon na ànd ak ñoom dem di julli ah wax andil ñu loolu rek parce que booba màkk moom ñaari ponk yooyu fa amoon muy julli ak wax baatu seede yi andil ñu fenn foo xamante ni Abu Taalib wax na fa baatu seede yi dëggal ni yàlla kenn la yonte yàlla Muhammad yàlla moo ko yónni ngi lay nuyu di la siyaar yaakaar naa moom dugg na ci lislaam bi wax na baatu seede yi ni ko Seydina Bakar Siddiq waxee ni ko Seydina Omar waxee ni ko Abbas waxee ni ko Hamza waxee andil ñu fenn foo xamante ni rek moom wax na ko ni moom dugg na ci lislaam wax na ko bi ñuy nekk màkk doon na pratiquer doon na ànd ak ñoom dem di julli doon na ànd ak ñoom dem di julli wax andil ñu loolu rek parce que booba màkk moom ñaari ponk yooyu fa amoon muy julli ak wax baatu seede yi andil ñu fenn foo xamante ni Abu Talib wax na fa baatu seede yi dëggal ni yàlla kenn la yonte yàlla Muhammad yàlla moo ko yónni ñuy mu ànd ak ñoom di julli andil ñu ko rek. waaleykum salaam wa rahmatullah Baye maa ngi lay siyaare bu baax. waaw wax dëgg yàlla waxtaan yi de moom topp nañ ko démb lépp lépp lépp ci guddi gi te ba ba xam suñu dugaloon benn contribution yi boobu ñu dugaloon dig dig léegi itam la ñuy doog a taal déglu tontu li ñu doon tontu waaye daal bay Baba Diaw saxaabatul kiram su fekkee ne nga ne ma ñu néew a néew nga ci mën nañ ci mën a lim ne dégg nañ tudd baati seere yi waaye saxaabatul kiram moom dañoo wees sax tudd baati seere yi julli ci ginnaaw yonent bi ay ati ati at xareek moom mu génn àdduna nga continué di xare di yaatal islam kooku moom saxaabatul kiram wax dëgg yàlla moom weesu nañ dégg ci ñoom ñu tudd baati seere yi nag dëgg dëgg nag weesu nañ dégg ci ñoom dégg ñu tudd baati seere yi ku mel ne Sidina Bilaal donte maanaam téere téere yëpp dama jox misaal ci moom soxaluñ ne fu mu tudd baati seere yi asla mën a tuub naa rek loolu loolu lañ ko soxalal wante kere ba julli wàcc ba ni ba ni yonente bi sàngoo suuf bilaal mi ngi julli ci ginnaaw ginnaaw bilaal mi ngi not di julli ak ñeneen ak ñeneen kon saxaaba yi mu seen mbiru leer naññ la baat fere tudd nañ ko jëfee nañ ci ginnaaw julli na ci ginnaaw yonente bi ay ateet xare nañ ci ginnaaw yonente bi ah kere badar trois cent treize personnes yooyu bu fekkente ne dégguñu kenn wax mu baax wax baati fere itam jóge nañ Madinatu Munawwara ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ba yàlla may leen dam kon ñooñu moom wax dëgg yàlla nag jëru laaj naan ndax gis ndax dégg nañu tudd baati baati saxaada yi fii kay li ci yéeme mooy koo xamante ne koo xamante ne bi moom moo jur yonent bi sallallahu alayhi defal ko teraanga bu nit xam rek bu nit xam rek mu defal ko dema dem ba yonent bi mu gën a bëgg ci yonent bi ay ay doom ak i soxnaam côté bu ne protesté bu protesté yonente bi côté bu bu nit xam rek lépp luy kàttanam rek def na ko ngir protesté yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni bi mu dund ak moom fukki at fukki at kere bu julli wàccee ba ni sëriñ boobu génn àddina gis ñu fenn yoon fu ne histoire saxal na julli na wala ba tudd na baati seere yi lii mooy li garaaw takat teraanga jee mu defal yonente bi sallallahu alayhi bind kat histoire ñoo ko ñoo ñoo ko bindal man dana ma jaaxal lool bind kat histoire di bindal ko mbooleem xeet teraanga boo xam ne def na ko ba si julli gi ak tuub gi bañ ko bind man lu ma jaaxal la mboolem lu xeet teraanga lu mu defal yonente bi histoire nett nanu ko waaye bi ñu egsi daal ci tuub gi moom ñoom ñëpp ñu d'accord ne bu buñ ci wax loolu daal suñ bi lu yéeme yéeme yéeme la da wax dëgg yàlla tey man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis moo fu mu saxale ne Abu Talib na Seydina Ali muy doomam gis fu ko saxale man daal li ma gis mooy ñi ngi yéen yu mel ni yéen interprète jëf ju baax jëm def moom ngeen interprète ne lii ab jullit a koy def kon ab jullit la ngeen sañ ko nag ñu nangul leen ko wante ku mel ne man daal ba tey jii gisagul lu ma teg loxoom lu tax mu mën a jàppale ne Abu Talib ab wax dëgg yàlla ànd ak nag wat naa ci yàlla li ma ko yéenee sax kiimaan la li ma ko yéenee kiimaan la ñu indi ñu euh, information bu wér taarix yu wér a wér a wér ne ab jullit la alhamdulilah rabbil alamin ndax ku ma ñi ma gën a yéene ak jullit si kaw suuf ci la bokk wax dëgg yàlla gisaguma fu ma ko mën a fu ma mën a sukkandiku ba saxal ko ban ko saxal Euh, Cheikh Alpha ñu ngi lay nuyu di la di la di la ziara di la sa wàccuwaay euh, indil nga ñu wax joo xamante ni si nee nga ay borom xam ñoo ko wax euh, ma indi la wax joo xamante ni si ci ñuy tuumal baayam doomam moo ko wax waaw léegi ñaari wax yi ban nga siy tànn waaw wax joo xamante ni si nee nga ay borom xam-xam ñoo ko wax ay borom xam-xam yoo xamante ni si wérul ne waaw wóoru la ne ndax noonu kee ñuy tuumal la wala déet ak wax joo xamante ni si doom moo ko waxal baayam waaw ci maandu wax ji ñaari wax yi ba nga ciy jël. Safa dama lay laaj benn laaj rek euh, bu gën a am solo yow yal na la yàlla may gudd fan yal na la yàlla barkel say doom doom ji nga xamante ni yar nga ko ci lislaam ba mu màgg nga aar ko ci lislaam mu ama ay noonu wër ko nga aar ko aar ko wala budul sa doom bopp sax sa doomi mbokk nga aar ko sa dund bi waaye ba lu mu bëgg rek yàlla taxawal ko bu ñu naree gërëm kan lañuy gërëm est-ce que saxaaba yi def nañu lu ëpp lu Abu Talib defaloon yeneen jamono bu mu weetoon ñu def xisaar boobu ci moom eh. Moustapha lislaam bu mu fësee ci la sahaaba yi ñëw dugg ci l'islam xeebuñu liggéey sahaaba yi waaye doo wax sahaaba yi def nañu lu ëpp lu Abu Talib def il nga xam loolu donc baatu seede wax ko ci kaw nit ñi xam ko walla nit ñi xamuñu yow baatu seede est da nga ko dégg ci ay sëriñ yi nga gëm yëpp maanaam say sëriñ yi yëpp ay say xarit yi yëpp walla say àndandoo yëpp walla say mbokk yépp est-ce que du seeni jëf moo lay wonee ni ñoom ay jullit lañ Cheikh Alpha wallahi sa audio bi rek waroon naa tax ñu bëree bëri maado ci mbir mi euh, xam nga yow ba léegi waxuloo ni mosu ko wax ci dundam da ne bi muy génn àdduna waaw bi ko yéen sallallahu alayhi wasallam di wax laa ilaha illallah foofu wax ko amul dara luy saxal ne waxu ko woon bu njëkk waaw kon moom ci lan la àndoon ak yéen sallallahu alayhi wa sallam di ko aar di ko sàmm ci lan ban gëm-gëm la amoon ba ñu mel ne abu jahlin abu lahabin ñeneen ak ñeneen euh, bedd yéen sallallahu alayhi wa sallam di ko di ko di ko di ko di ko muhaasara moom mu ñëw ànd ak yéen sallallahu alayhi wa fu yonent bi dem mu dem fa kon moom ci lan la àndoon ak yéen sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, te topp jullit bi faatu euh, bañ a wax laa ilaha illa allah mais teewul mu waaw teewul mu nekk ci xëy na bu waxee laa ilaha illa moom mooy moom kenn du ko xisaab day dugg àjjana direct man man man kaana axiru kalaami laa ilaha illa allah daxala xam nga loolu ak lii ngay wax dafa bokkul sa diamétralement opposé Cheikh alfa bëgg naa ñaari daal nga nga seetantal ko bàyyi si xel bu baax a euh, euh, ñu ngi lay duyu di la di la di la waa léegi man dama am benn iskal foofu euh, kon yonent bi sallallahu alayhi bi Abu Talib nekkee ci ci ci dooleem di ko aar te yàlla yónni ko mu xam ne moom yàlla yónni na ko te yàlla def na ko wanzir asirataka al aqrabin waaw booy booy booy wootee commencé sa kër te Abu Talib moo ko njëkk a jege kon ndax woon na ko boobu ndax waxoon na ko laa ilaha illa allah waaw bu fekkee waxu ko woon lan moo tax waxu ko woon ndax kon day def mu xaalaf ak aay bi yàlla ne ko booy wootee commencé sa kër waaw commencé say mbokk nga woo leen ndax woowuloon Abu Talib wala ndax bi mu woowee Abu Talib foofu Abu Talib dafa bañ wala déet waaw loolu daal bëgg naa nga nga nga leeral ko Cheikh Alpha yow yaa ñëw leeral ni leer yonent bi moom maamu yonent bi rek la wax bu ne maamu yonent bi yonent bi am na ay maam yu dem safara am na ay maamam mais nag yow yaa ñëw daal di soog a leen wa taqallubaka fi saajidiina loolu d'accord na waaw yonent bi te foofu sax dañu wax ni eh, leer yonent yàlla Muhammad mosul jaar ci ndigg yuy mooy yàlla lañ wax maanaam ndigg yuy def safaan ba loolu rek lañ wax sax waaye waxuñu ndigg yoo xam ne ñëpp àjjana lañ jëm dañu wax ni lente yàlla Muhammad ci ndigg yi mu jaar yëpp ay ndigg yu laab lañ kenn mësu cee def safaan ba donc loolu mooy problème bi kon man li may wax xam naa ko bu baax a baax a baax waaw baaba euh, oustaz baaba jo nag dafa wax mu ni maamam yëpp léegi nag yow yaa ñëw distingué commencé di leeral di séparé ni leer gi nii leer gi naa d'accord waaw mais nag dama la bëgg a xamal ni moom xaabil moom mënuñoo muus ba nekkul maamu yonte la te si sa ak xaabil ñoo kon donc loolu moom mënta ñàkk loolu moom bu la neexee nga ni tegtal bu bu oyof la amul sens amul bu la neexee yow amul sens waaye ci man am na sens xaj na sama xam-xam bu gàtt tax foofu laa toll. Euh, alpha lu ñuy wax ci soose baa bu la juloo la juloo bula la baala abee mu kiline abee mu kiline da nga jël buum bi nga takk ko ci béy bi takkal béy bi ci buum bi benn la bu la nee maamam yow waroo nangu sax en tant que boroom xam-xam. baaba jaw man li ma comprendre li mu bëgg a wax yow loolu nga war a comprendre ndax baaba jawaa ngi fële yow la gën a jege foofu baaba jaw yow la gën a jege fu mu nekk que man sore naa ak moom man comprendre naa moom buy wax maali yenente yi comprendre naa loolu lan la bëgg a wax mais yow en tant que borom xam-xam munoo wax loolu il faut mu tuddal la ay maam yooyu wala mu ne la leeru yenente bi yow foofu rek nga mën a comprendre lan la bëgg a wax c'est dommage loolu boroom xam-xam du def boobu démarche ñu wax ne alxurru tushkihil ishaara alxurru tushkihil bu ne maamam rek loolu doy na loolu doy na sëkk nga comprendre ni leer bi fu mu jaaroon foofu la doon wax loolu mooy dëgg euh, Cheikh Alpha Euh, beneen bi si topp euh, moom mooy bu fekkee ne euh, yéen saali wasallam sax na ne woowul woon Abu Talib bi jamono bi nga xamante ni si Abu Talib mi ngi si kattanam ànd xelam di dund yéen saali wasallam mësu koo tal mësu koo wax papa wax laa ilaha illallah dugg ci diina ji kon ndax yéen saali wasallam bàyyiwul li ko suñ borom wax fii ci aaya bi waaw bu fekkee defu ko ndax yonent sa alayhi wasallam bàyyi li mu nga wax fii ci aaya bi euh, beneen bi sopp euh, yonent sallallahu alayhi wasallam bu fekkee li nga wax am na ne euh, abu abu talib yéefar la woon ndax yonent sallallahu alayhi wasallam am na sañ-sañu tiim ab yéefar muy faatu mu koy talqin baat yi naan ko waxal laa ilaha illa allah waaw ndax kon loolu noonu ñun ñii waaw dund gi naan sallallahu alayhi wasallam ndax am nañ sañ-sañ ab yéefar buy faatu nga tiim ko di ko wax laa ilaha illa wala déet beneen bi si topp Cheikh lii ma la dugalal nii waaw ndax da koy wéral wax wax Ibn Abbas bi ndax da koy wéral euh, ak li euh, Abu Lahabin def lépp waaw li mu def lépp euh, jaamu ko xaram def ko sallallahu ak li mu yëpp léegi nag boo jëlee Abu ak Abu Talib seen ak ak lii nga xamante ni si doom wax na ko ci wéyjuram ne sama bàyyi mësula sujjootal xërëm waaw sama bàyyi mësula jaamu ku dul sun borom subhanahu wa taala dan julli si kaaba gi waaw sama baay euh, maata musliman waaw léegi nag kële ñu koy wàññil mbugalam altine bu jot ak li mu def lépp nag malgré kii euh, mu sax ne moom moom moom du julli waaw yu maata kaafiran waaw euh, mi ngi ngi biir safara waaw léegi ñaari ñaari ñaari ñaari wax yi moom ndax da ngay dëggal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Mouhamadul Mansour Sall ñu ngi lay siyaare bu baax day jox si wàcc waaye dafa xam-xam bi Euh, ma am tuuti luñ la laaj wéer nañ ko ci histoire yu bari daa mel ni bii ngir sëñ baaba ko sëñ baaba joon saxalaat na ko mais abou talib bi mu génnee àddina abou talib bi mu génnee àddina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yebal sayidna nga dem toppatoo ko suuf ko waaye su fekkee seen argument mooy maanaam ab jullit la ci lislaam ji la faatoo teraanga jëm dafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn defalu ko ni mu protesté yonent bi ni mu sonne ci moom li mu ko defal ni mu ko defal ni mu ko taxawoo njabootam gépp dina ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnaat yonent bi demut ci rob ba daa yeble jullit bu mel nii dafa dafa jëlee traité bi mel nii nga ne ci dëkk mu génn àddina demoo ci rob ba da ngaa loolu naka lay demee te yeneen histoire yi saxal nañ wér naa wéru nañ ko wérifee ba xam am nañ saxal ne yaay Seydina Aliyu yenente bi benn ñi ñi ne moo ko dugal ci bàmmeel ñi ne nettam robb moom yabataale bu ñëwee di fekkul fekkul robb ni ñu nettalee loolu tamit nak ngeen ko mën a jànge nak ngeen ko mën a jàngate yéen ak it li wér daal mooy jullit boo xam ne moom ne ngeen maanaam ab jullit la fukki at bi yàlla yónnee yonent ba ni mu génn àddina fukki at yooyu ak jullit doon na ko jullit na ko ab jullit te te mu mënuñoo indi lu saxal ne tudd na baati seere yi mënuñoo indi fu mu saxal fu jullee te ñaare ba itam li tax ñu mën a gëm ne ku baax la ku defal yonent bu lu rëy rëy la téere histoire yi ñoo na ko nettali ñu gëm loolu bindkat histoire yëpp naka la dëppoo ci ñàkk saxal ak ak ak tubam loolu li ma jaaxal la wax dëgg yàlla li ko waxal ci teranga su ci tuub boo ko yaakaar daañu ko daañu ko ci boole nag. waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha Diop dafa mel ne ndékki nga ba pare ndax dégg naa la sànq ci kaw <laughs> nga ne bala ngaa laal waxtu bi da ngay ndékki ba pare kon boog ndékki nga ba pare waaye Moustapha Diop euh, Cheikh Moustapha euh, xam nga fal aqrabu awla waaw fal aqrab awla waaw yaakaar naa ne doom moo gën a jege ci juróom bu faatoo pour mu defar ko te euh, aliyun doomu abu talib la donte yéen saali wasalaam sax moom la yàlla yónni si ñëpp euh, sunu jamono jii ñu nekk rek euh, da ngay jël sa sëriñ jébal ko ca lépp di ko defal lépp waaw di ko defal lépp nag lu fee ak lu nëbbu déggal ko lool nga génn àdduna sëñ bi du la jullee du la dugal siir bàmmeel mais day yebal day day day jël ñu mu fonk yebal la ñu jullee la te yéen saali wasalaam xam na fi mu tegoon naa Ali ak fonk gi mu ko fonk moo tax mu yebal ko mu jullee ba mu defar baayam waaw lii moom loo loo loolu du dara sëñ Moustapha loolu moom euh, buñ su buñ sukkandiku rek ci euh, ne wax ji ci wax ji day dàq li aussi Cheikh Moustapha euh, sa ñaareelu laaj bi yaakaar naa ne moom mooy te baatu seede yi ñuy wax ne tudd na ko ak julli gi ñu ne mas nga ne daawu ko def wala kenn mësul a gis fu ñu ne daan na julli xam nga. Euh, te euh, wax ñiy wax ci mbir mi yëpp dañ ne bi muy faatu waaw bi muy faatu tuddul baat seede yi waaye la jëkk muy faatu moom loolu moom wóorul kenn kenn waxul la tudd ko waaw amul benn téere buy mën a saxal ne bi Abu Talib nekkee ci digg dooleem di dund te laataanu euh, maradul mawti di ko dal mësul tudd baat yi loolu moom bàyyi na bëgg naa nga bàyyi si benn bis topp julli na ah kay ndax doomam saxal na ko abu abu talib saxal na ko dugal naa la dugal naa la wax ji si kaw waaw saxal ne moom bàyyam daan na julli ci kaaba gi te nag euh, doom yaakaar naa ne moom moo gën a yey ci seedal bàyyam ak ñeneen asalaamaaleykum wa rahmatullah qul jaa al ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu kilifa yi fi yëpp ñoom Cheikh Alpha Sall ak euh, Yaxya ñoom Cheikh Mansour ak Oustaz Jibril waaye ñi ngi ndokkeel bu baax a baax a baax oustaz yi nga xam ne ñoom ñoo doon def joxe darsu bi mooy oustaz Babacar ak Cheikh Baba Diaw suñu xaritu ñu sëriñ sas al fasal euh, xaddu yooyu mel nii de moom xam naa ne boo leen ci leeralee ba pare euh, ñii taxawee boor bi taxawee nañ boor bi ñii taxawee boor bi nañ boor bi xam naa ne moom euh, dajji masaadir sunna ahlu sunna rek moo tax moo moo moo ci des suñ toll nii parce que ku ci nekk sa gëm-gëm moom yaakaar na ne kenn mënul tax nga randal man démb gis naa ci maraaji yi xaw ma kan moo ko dugal maa ngi ciy gis benn maraaji ñu bind ne Buxaari dalla sa ka ka aadatihi man dama ci naroon wax sax waaye ma gisee marjaax boobu ñu indi ko ni Buxaari dalla sa ka aadatihi man laa ci pare euh, Abu Taalib dama bëgg ñu wax ne wa taqallubuka fi saajidin bu ñuy wax silsila yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam dinañ ci wax Abu Taalib ci euh, ndigg yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa jaar na ko loolu dama koy laaj nañ ma indil ndigg euh, silsila boo xam ne Abu Talib daf ci bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yaakaar naa ne Abdou moom mbokk Abdul Muttalib la mbokk ma Abdullahi la mbokk ma Abdullahi nag moom moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullahi kon Abdou Abu Talib dafay nekk ci beneen côté bi ci Ali ibn Abi Talib kon mbir mi dafay dem ba dugg ci wàllu politique te ci wàllu politique rek dafay am beneen clan boo xam ne daf ciy nekk. mbooloom ahlu sunna wal jamaa mbooloom nag mbooloom boroom xam-xam yëpp masala bi ñëpp ñëpp ñëpp dañu cee bokk gis-gis dañ cee bokk wax mooy comme lii nga wax loolu lañ borom xam-xam yëpp moom lañ dëggal moom la borom xam yëpp bind it ñun borom xam moom lañ bind te ñun ñoom lañ gën a gëm que borom yi ñu ñuy wax waaw wax ñun loolu lañ wax loolu la ahlu sunna wal jamaa wax waaye daan na wax alhamdulilahi ba muy dem ñaani waaw ba muy dem ñaani parce que boobu lislaam amul woon ba muy dem ñaani xarija boobu lislaam amul woon kon ba muy wax alhamdulilahi kon alhamdulilahi rabbil alamin dañu ko xamoon te it ñoom ñëpp ci diine ibrahima lañ nekkoon diine ibrahima nag ay muslim lañ woon waaye gëmul woon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam duggul woon ci islam gi salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu waaw xam naa ne mu préciser rek di ko leeral di la ko leeral di ko leeral mboolem groupe bi yëpp ne man ñëwuma pour dàq wala pour may saxal damaa ñëw indi sama mawqif waaw ci li ma gëm laa indi waaw li ma gëm nag laay laa laa wax euh, donte nag euh, damay lii euh, li si ahlu sunna wal jamaa wax ak li nga xamante ni si chia wax nañ ko ma jël ñaari wax yi def leen muqaarana boo ko defee si lay mën a am ngëm-ngëm waaw ak ni histoire tëddee waaw ak mbir mi bi muy tàmbali euh, lépp ni mu demee xam nañ ko yaakaar naa ne jarul ñu si dellu ndax dem Cheikh Ismaïla Gueye ñëw na si bu baax a baax euh, waaye euh, li nga wax rek mooy li am xam nga fi fi ñu wuutee fi ñu wuutee moom mooy bi muy faatu waxu ko waaye mën la man day liiraguma ab téere bu ne Abu Talib mësu koo wax ci dundam waaw mësu koo wax ci dundam te it li ma gëm moom mooy li tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw si kanamam di ko talqiin mooy kay dafa nekkoon ab jullit bu du woon bu nekkoon du ab jullit kon euh, yonent sallallahu alayhi wa sallam du ñëw euh, ci kanamam euh, di ko talqiin baati naan ko waxal baati nangam ak nangam waaw ndax ñun ñii rek boo amee ab kuy kuy nekk si sukuraat da ngay tiim si kanam di wax baati seede yi pour mu pour mu pour mu pour mu jaaraat si boo ko defee mu dugg si xadis bi rek man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxal al janna waaw daxal al janna googu nag bilaa xisaabin dong lay nekk rek xëy na loolu mooy seen mooy mooy seen différence euh, beneen bi si topp euh, euh, julli gi ngay wax waaw doomam saxal na ne daan na julli daan na julli si kaaba ga waaw doomam saxal na ne moom daan na julli si kaaba ga waaye léegi lu doom saxal ci baayam léegi ñun ñi nga xam te juruñu juraañu nan lañ koy dàqee loolu daal lu may yëm la Cheikh Moustapha waaw wallaay wax nga dëgg Cheikh Rawhan waaw si seen marjixi la marjixi chiixi la waaye xam nga xam-xam moom waaw fépp la nekk euh, daanaka boo bëggee euh, jëriñu si xam-xam da ngay bañ a def luñ tuddee muy di juqi fii bàyyi fële waaw da jële fii jël fii bu ko defee nga nga nga def muqaarana euh, si ñaari yi nga am bu ko defee ci ngay mën a amee mawqif waaye boo boo jàppee lële rek ba bañ a bañ lii daanaka booba mën nga am ay jafe-jafe waaw ci ak maandoog ñàkk maandu mën naa mën na mën naa mën naa dugg euh, ndax euh, ixtilaaf taif la waaw ay kuréel ñoo wuute euh, boo xoolee diggante diggante bu yàgg la ci chia yi ak ñële nga xamante ni si dama naan sax xëy na bu fekkoon ne Abu Talib jurul Aliyun waaw keneen la beneen saxaaba la xëy na ixtilaaf bi du demee nii mais comme que Alioune la jur euh, yaakaar naa ne ak euh, diggante yi ni mu mel yaakaar naa ne moom moo tax euh, ixtilaaf yi àgg fii waaw di la wéral rek la lii moom si marja ay seey la waaw si seen maraaja yi si la si la si la bokk si lañ koy cuqatee jàngat ko def muxaarana ak ci kitaabu ahlu sunna yu bëree bëri door ko wéral indi ko fii si groupe bi Euh, beneen bi si euh, mooy man li ma gëm moom mooy amul benn jullit buy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah di yéene Abu Talib muy dugg safara waaw loolu moom gëwuma ko ah bu sa bu sa njullit wóoree gëwuma ko ah, léegi nag comme que werante am na si euh, da jàpp ne taarix moo demee nii waaw ah, si biir taarix nag lu ne am na si irsaliyaat yaa ngi fi ak yeneen ak yeneen ak sos sos yaa ngi fi ak yooyu yëpp nag moom pour pour pour taarix mucc si dafa nekk lu jafe-jafe jafe moo tax dal way aji jàng ji euh, li mu war a def moom mooy maandu ci taarix bu mu jël euh, dara jàpp ne lii rek waaw lu dul lii du dëgg waaw ndax li li li nga gëm ba ne lii rek moom mooy dëgg ñeneen gëm nañ leneen ba ne loolu ñu gëm moom mooy dëgg kon ñaari dëgg nag ah, mënta daje kon am na ku nekk ci dëgg am na ku nekk ci caaxaan gis nga aay yi ñu jël di saxal ne Abu Taalib ak ahadis yi ñu jël di saxal ne Abu Talib deewul ci ak njullit moom la ñeneen jël di saxal ne Abu Talib euh, ci ak njulli la faatoo gis nga kon mu nekk ñaari mbir yu yéeme ndax li ñuy di daq ñii li ñuy dàq ñii ci la ñuy tegtaloo moo tax mbir la boo xamante ni daal yaakaar naa ne dafa laaj maandu dafa laj gën a gëstu bañ a am daal foo yemale sa sa sa gëstu waaw man daal mawqif bi laa ci am Cheikh Rawhan jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Mouhamadul Mansour Sall maa ngi lay ziare yow suñu sëriñ nga suñu sëriñ nga suñu sëtu sëriñ nga wax dëgg yàlla euh, dañuy doyloo rek li nga wax chaque jour waaw dañuy doyloo li nga wax chaque jour waaye masala bi moom euh, dafa dafa dafa dafa dafay xaw a nekk beneen masala boo xam ne il faut ñu am luñ ci taxawee. indi naa man damay dellu ci marjaa chien yi de wallahi alazim alkarim dama ci dellu bu baax a baax a baax a baax a baax xadiya yi ngeen di wax yi nii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bu ci nekk rek damay dem seeti seen ay téere waaw man noonu laay defee waaye su may dellu nag di référence nag damay référence samay borom xam-xam su ñuy référé woo man noonu laay defee waaye marjan bi boo xoolee sama deuxième audio xam sama troisième audio wax naa ne même même même imam jaaf même imam euh, jaafar indi na wax ne indi na benn boo xam ne ne jibril dafa wàcc yent bi sallallahu alayhi wa di ko bégalee ne ko say maam de abdul muttalib ak sa sa sa sa baay abou talib ñëpp suñu borom génne na leen ci safara mi yóbbu suñu borom dugal leen safara mi ngi leen dugal aljana loolu am na benn xadis boo xam ne imaam Jaafar indi na ko kon nag loolu benn margin la te it yow déglu naa sànq sa wax mooy ne d'accord nga ne Abu Talib amul benn benn benn xadis bu wér boo xam ne mën nañ ko windi bi yent bi sallallahu alayhi wa sallam wootee booba bu muy génn àdduna moom mu julli ci ginnaaw yenent bi wala mu indi dara ci yenent bi sallallahu wala xadis bu wér wax ne toog na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono daar abi arxam ibn abi arxam wala nangam ak nangam loolu yëpp ba léegi dara dara dara dara leeru ci kon nag feneen fu mu doon référé woo ñu ñoo ko xam te it euh, feneen fu mu doon référé woo moom xam nañ ko te it yow xadis bi nga indi ne imaam Ali moom moo ko wax loolu même bu fekkente ne xadis boobu noonu wér na même bu fekkente ne xadis wér na te it damay jàpp ne sax xadis wér na parce que it euh, muy marjan ahlu sunna muy marjan chien ay marajien yu wér lañ même bu bi wéree loolu dàqowantewul ne moom Abu Talib kaana muminan kaana muminan loolu moom du dàq wante parce que xadis bi buñ ko toppee it dafay wane ne Ali ibn Abi Talib wax na ne waajuram musul musul sujootal xërëm loolu dañ ciy d'accord musul sujootal xërëm parce que am na diine buñ fi bàyyi buñ fi fekkoon mu diine Ibrahima waaye diine Ibrahima boobu ba diine Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee boobu noonu dafay folleeku l'islam moom mooy ñëw waaye moom l'islam boobu noonu nga xam ne moom mooy ñëwal nag bële folli nangu woon nangu woon dugg ci bopp bu ko folli loolu la boo xoolee waayam ji nga xam ne rakam la xaw ma magam la mooy Hamza ibnu Abdul Muttalib Hamza moom wax dëgg yàlla laqad aalana islamahu alanan ñëpp xamoon nañ ko mu rangé wu ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te pourtant xam la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jeeri ñëpp xam nañ Hamza jàmbaaram ni ñu mën a nettalee ci Hamza nag est ce que mën nañ ko nettalee ci Abu Talib déedéet <laughs> loolu la rek loolu la ñu ngi lay a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki waqul jaa alxaq wa zahaqa albatilu ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ziyaar di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla yàlla boole baal mu mel ne mbokk yi dañ doon débat démb ci lislaamu abi talib abu talib nag Euh, teel naa gë teel naa gis ne yonent bi ab yonent lay doon teel naa gis ne Muhammad ab yonent lay doon <coughs> teel na koo ràññee laata wax yi di wàcc ci moom moom xam ne ne Muhammad nii kat yonent la yonent lay doon danaa la ci nettali benn xissa xista bi suñ maam Seydi Hadj Malick mi ngi koy wax ci xilaasu zahab euh, kii mu ma téere bi nag moo tax euh, bi yonent bi sallallahu amee fukki juróom su ma juumee ci dab bii ngeen jéggal ma booba daal yaakaar naa ne yonent bi amagul ñaar fukki at Ali ibn Abi Talib dafa dafa tukki ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa pour dem Sham bi ñu demee laata ñuy àgg benn buur doon leen dalal ndax dafa seen ci gawar gi koo xam ne njortu na ne nit ku rax la mu daal di leen di rey leen ay giléem ba ñu toggee añ ya ba pare wala ba ñu toggee bernal ya ba pare fekk ne Abu Taalib nee Muhammad sallallahu alayhi xaar ñu fii ci giléem yi te ñu dem te ñëw moom jàpp ne Abu Taalib dafa jàpp buur bi kat moo tax mu mu mu rey giléem yeeg xar yi te fekk ne xale yu mu gis mu ànd ak ñoom moo tax mu indi beneen bi ñoom ñëpp sukk buur bi xool xool xool gisul xale ba àndoon ak Abu Talib mu ne Abu Talib ana ki nga àndoon mu ne ko ma nga ca gawar ya mu ne ko indi ko ba ñu ko indee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lekk ba pare buur bi mi ngi koy xool rek ba mu paree mu di ko laaj mu di ko laaj ay laaj mu di ko laaj te di ko seetluwaale lu mu ko laaj mu tontu maanaam mu di ko laaj ca lañ jàngoon ci téere yu jëkk ya ne yonent bi ñëw nii lay mel lu mu ko laaj rek yonent bi tontu loolu ba dafa mujj yëkkati mbub mi pour xool euh, màndarga bi nga xam ne mooy wane ne yonent bi mooy tëj yonent yi xaatamu nubuwa mu gis kam mu nekk ci ñaari mbagg yi mu wàcce ko mu ñëw ci Abu Talib ne ko kii kat yonent bi nga xam la téeri doon wax ne mooy ñëw kii moom lay doon waaye nañ ko sàmm ba noon yi duñ ak ci moom xool kon Abu Talib teel naa xam ne yonent bi ab yonent lay doon te loru ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeféer yi côté bu ne ñëw nañ ci Abu Taalib pour bëgg a jot ci yonent bi mais mënuñu ko Seydi Hajji Maalik wax na ko jaa'u ilaa ammihi eh? jiiman li yuxzilahu mu ne may yabra may yabri bayda anuuxin aaqilan yulami ñëw nañ ci moom ñetti yoon waaw ñëw nañ ci moom ñetti yoon ci Abu Talib pour mu joxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu pour ñu rey ko waaw waaye nag kuy sàkku euh, nenu an wux des na la yedd ndax am ko ba téye ko ci sa loxo yombul waaw te euh, borom xam-xam yi dañ cee wuti abbas ci boppam moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bi mu koy wax waxal laa ilaha illallah moom waxu ko abbas nee na may may xool abu taalib yonent bi génn abbas nee na may xool abu taalib mi ngi yëngal tuñ yi di yëngal tuñ yi nee na mu jël noppam tax ci nopp abu taalib mu dégg mu naan laa ilaha illallah bi yonent bi dikkee mu ne ko eh, mu ne ko yab yabna axi inna axi xaala alkalima allati allati amartahu biha mu ne ko yow sama doomu mag sama sama sama mag jii day wax na baat bi nga xaa ne lu ko digal pour mu wax ko te muy ilaha illallah te mooy laa ilaha illa allah waaw te Abu Talib Cheikh maa ngi lay siyaare bu baax a baax alhamdulilah xabaas bi muy moo nekk ne moom dégg na ko wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye da nga fàtt na nga bàyyi xel gi moom dugur ci diina e kananɗe karame karame kana oɗon habbas ɗo ko tuubi ɗiɗi ɗi nayyi hayde aɓa talbi ɗi jennat no habbas noon ɗono ko tuubi ɗiɗi amaral abota ɗo yeenen ko lowol angam wa histoire dal limi nette ci moom jëf ju baax ay ay jaar jaar yu rafet yu defal yonente bi ay sallam ak taxaw aar ko ko noonu yi téere yi nett waaye téere yi daal saxal nañ fi tudde fu ñu tudde baati yi fu mu daan jullee dalil boobu moom gisaguñ waaw xam nga Abu Talib bi nga xam ne xamoon na ne yonent bi moom ab yonent lay doon ndax euh, boroom xam-xam yu bari xamal ko xamal nañ ne ko kii kët sàmm ko nang ko aar ba yéeféer yi duñ ko lor ndax ci moom lañ gis màndarga yonent yi ki yàlla di mujje yónni màndarga bi war a nekk ci moom ci moom la nekk mais yonent bi musul am lu ko lor lu bàyyi ko ci Abu Talib wala sax Abu Talib da koo gën a bëgg ci ay doom sax waaw kaana yoxsinu ilayhi wa yuhibbuhu xubban jamman jamman da daan rafetal jëme ci moom sopp ko sopp goo xanam ko soppi soppi ko keneen kooku am na tax mu gënal ko gëm ni kii ab yonent la moo tax mu soppe ko noonu moo tax mu jël ko teg ko ci kaw ay njabootam moom moom Abu Talib jël Muhammad teg ko ci kaw ay jabootam ba keroog bi Abu Talib faatoo yonent bi dafa jàq ndax Abu Talib ak Xadija ñoo bokk benn at benn at bu ñu faatoo ñu koy tuddee aamul xusni atum jàqare waaw amul xusni euh, te ak faatoom boo demee ci xilaasa moom Sidi Ahmed dafa wax ne waa fànn gii di taarix ñoom dañoo wuute ci faatoom ci faatoom ci lislaam mu ne nag ki nga xam ne moom moo saxal euh, dee gim dee ci lislaam mooy Abbas li daal Sidi Ahmed wax na ko ci xilaasa Zahab. waaw Cheikh Makhtar Diop gis nga abyaat yi. abu taalib moo ko yaa shaahid alxalqi alayya fashhadi inni ala diini nabiyi muhammadi gis de yow mi nga xam ne di wax ak yàlla ne yow mi nga xam ne yow a janoo ko bindee fii alayya fashhad maanaam fashhad seedeel alayya ci man inni naka man ala diini nabiyi muhammadi maa ngi ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boo seetloo ki duggagul ci lislaam buy bëgg a dee xam nga luñ koy wax waxal ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu abu taalib bi bëgg a faatu xam nga lu ko yonent bi doon wax waxal laa ilaha illallah ndax yonent bi moo ne laqinu mawtaakum bi laa ilaha illallah waaw yéen jullit ñi bu ngeen gisee jullit mu nar a dee dee wax ci kanamam laa ilaha illa waaye man li ma jàpp mooy su fekkoon te woon na gëmul yàlla ba muy faatu danaan ko waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu mu dem banaan ala ala ala inna umman wa walidan ida odda saadatul bariyati ahmadu waaw eh, ki nee na ci gën ki gën ci nit ñi yaay ak wayjur wu góor suñ di lim sang yépp mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu naan eh, nabiyu ilahi walkarimu bi aslihi wa axlaaqihi wa huwa arrasidu almuayyadu eh? mu ne yonent bi nabiyu ilaahi mooy yonent bi yàlla ni mooy yonent bi yàlla yónni kon gëm na ne yàlla moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu taalib gëm na ne yàlla mooy ilaah gëm na ne muhammad nabiyun waaye ki gëm ne yàlla mooy yàlla gëm ne muhammad nabiyun la lan moo la dese mu ne wal karimu bi aslihi mu ne mu nekk yonent boo xam bu tedd la ci ay cosaanam waaw bu tedd ci ay cosaanam waaw wa axlaaqihi ku tedd la ci ay jukkoom ndax yonent bi boo gëmee na jukkoom tedd na gëm ne itam yàllaa ko yónni gëm yàlla yàlla mi ko yónni yow la defe mu ne waxuwa rashidu te mooy ku jub ka al mu ka di ko ñu dëgëral waaw waaw euh, yaxya waaw fatima bintu asad moom euh, des gëm desoon ci abu taalib ba faatu te gëmoon yàlla euh, kooku du tegtal ci di du teg kenn mënu koo tegtaloo ci ngëmu abu taalib parce que abu taalib mi ngi faatu amul xusni ñetti at avant yonent bi di gàddaay euh, te ab jullit di xaraam di sëy ak yéeféer mi ngi wàcc jamono sulxul xudaybiya te mooy euh, bi ñu gàddaayee ba am juróom benni at kon euh, boobu moom du tegtal boobu du tegtal waaw Ismaïl waaw bindkat bi bind na lool léegi bu muy takkale Zeynab doomam ak abi aas boobu fan la woon qabla al hijra te fatimatu bintu asad des na ak abu talib makkat al mukarrama be mu faatu be abu talib faatu dégg mu ngi woon moom foofu wala yenente wala yenente kablale hijra bu muy takkale zeynab ak abi as xamuloon ne abu talib yéefeer la woon fatimata bint asad mu'min la waaw ismail gis nga taharim boobu nga wax ni boobu madina la et pourtant yenente moo takkale zeynab ak abi Zeynab ak Abiyaas moo tax ma doon laaj mbokk mi lan mooy tanzil ak inzal inzal mooy alquran wàcce ala qalbi rasulillahi dufatan wahida tanzil mooy muy ñëw par événementiel kon yenente umpuwul dara ahkaamul ilahiya balaa aaya di wàcc ci moom kon loolu moom leer na nañ bu muy takkale ñele zeynab ak abiyaaz makka la woon kablal hijra noonu la tamit yeneen jigéen ak seen jëkkër te munoon na koo defal abu taalib lu tax defalu ko ko non abiyaaz da cee boole woon di lor zeynab ak di xas yonent bi waaw abiance da cee boole woon da cee boole woon di lor Zeynabu ak di xas yonent bi yonent bi salaa sallam tàqale leen yonent bi salaa sallam leen o oh, Ismaïl loolu dafa nekk euh, lu ñuy tudd zaria ñi nga xamante ni dañuy uti zaria pour takkal loolu mais Aliyu Zeynul Abidin mi ko wax xam nga ni doomi imaam Huseynu la waaw loolu ñu ko bind muy waa bani umayya taanu rek taanun loolu la ñu bëgg a def ci yenente bi sallallahu alayhi wa fexe nañu ba fexe lépp loo xam ne mun na takkal ahlul bayt ñoom jéem nañ ko waa bani umayya ak seeni alliés waaye amul benn preuve bu nga ni wone na loolu te su fekkente ni loru Zeynab ak wax ci yenente est loolu moo tas na sëy est loolu tas na sëy ci charia parce que mi Ismaïla mën nga takkal man nga takkal sa doom jabar ak nu mu gën a bon bon bon amoo droit nga takkale ko ak moom l'islam mayu la ko yenente lu muy def yépp comme wa ma yantiku anil hawa rek waaw du def du def ci xalaatu boppam alhaaji ustaz yaxya ñi ngi lay nuyu di rafetal sa ndéggat yi nga xam ne yaa ngi ko sotti ci groupe bi Oustaz Yaxya man xam naa dama doon laaj laaj bu gàtt rek bi dabt Abu Talib kañ la nekk julli bi daal laa sàkku ak leeral euh, su ko defee nag ñu door laaj ndax ba mu nekkee jullit yàgg na ndax kon ba muy faatu sax na ne yonent alayhi salaam da ko doon wax tuubal wala bul tuub ma ma njëkkee laaj bale rek mooy Euh, ci histoire kañ la Abu Talib nekk jullit bu ñu waxee Seydina Aboubacar xam nañu at ba Seydina Omar naka noonu dem ba ci Seydina Ousmane Khalid ibn walid Omar ibn al-As daanaka ñu bëri mën ngaa wax ne at bii lañ dugg ci lislaam léegi nag Abu Talib ban at la dugg ci lislaam euh, Abu Talibin mosul nekk yéeféer ba nit di laaj yi julliteewam bu dee muslim la lu ñuy wax islam moom mu ngi woon ala millati ibrahim bi nga xamante ni baayam ci la nekk te lu tax ñu jox ko muhammad à l'égard ñeneen ñi loolu mooy moom lu nekk ci moom la te abu talibin yenente bu mu amee douze ans ci la ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci commerce bi nga xamante ni waa Quraysh ñu ngi koy def dem ci Sham fekk benn rahib bi nga xamante ni mooy Buhayr mu ngi ci saw maam bi nga ni foofu lay jaamee yàlla sallallahu eh, foofu lay jaamee yàlla boromam ci kaafila boobu yenente nekk ci biir waaye bokk na ñoom lu ñu jàng ci bichara bi nga xamante ni yenente yu njëkk yi def nañ ko ci yenente bi te bichara boobu bokk na ci yenente buy dox rek nuage bi daf koy tiim buy ànd di ànd ak nuage comme palansoor lu muy nekkee ci boppu doomi aadama rahib bu bu mu gisee xaafila bi mu ngi ñëw mu yéeg ci kaw néegam sawmaa boobu fu muy jaamee yàlla mu daal di gis poussière di ñëw mu gis nuage bi tazilluhum mu daal di gis mandarga boobu mu xaar ba mu egg dañu wax ni keroog la def li nga xamante ni musuñu ko gis ci ñoom mooy waa Quraysh di ko romb foogu mu ñëw dalal leen mu dalal leen mu sant ñu koy liggéeyal ni toggal leen togg yu bare mu ne leen kaay leen ngeen noppalu ci lekk boobu mu boole waa Quraysh ñaar ñaar ci bool waaye mu ne ñu boole ko moom ak gone boobu muy muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama gannaaw bu ko doon seetloo xool mandarga boobu ci moom waa Quraysh bu ñu demee pour lekk ñu bàyyi muhammad ci kaafila bi niñ ko bàyyee ci kaafila bi mu ñëw xool gisu ko mu ne leen xanaa amul ku des ci gannaaw ñu ne ko ankay am na ku des xale la mu ngi fele mu ne leen wooleen ko mu ñëw ndax di ngeen lekk bàyyi xale bi ñu boole ko ak Muhammad foofu la nekk di seetlu Muhammad di ko seetloo di ko seetloo di waxtaan ak moom di ko laaj ay laaj yu bare mujj bi yenente ne ko ndax danga nga xam a xam gis xaatmu nubuwa ci man ndax loolu nga bëgg ndax nu mu ko doon xoolee di ko visité mu ne ko waaw yeneen yenente génnee ci mbubam ci la ko ci la wax Abu Talib delloo ko mu wax ko yëpp li mu gis ci Muhammad mu ne ko fi nga koy yóbbu ni Sham yahud yi ñu ngi foofu buñ ko gisee rek mun nañ ko sakkal pexe mu delloo ko xam nga kooku ñàkkul ni Muhammad mu'min la man indi na ay la man maa la war a laaj sax jibril fan nga sukkandekoo ni moomu yéeféer la loolu dafa am solo trop nga tontu ma waaw sa wax ji nga ne fan nga sukkandiku ni moom ab yéeféer la subhanallah euh, nit fan lay sukkandiku ne aboo jahlin ab yéeféer la nit fan lay sukkandiku ne walid ibn muxira ab yéeféer la ak ñeneen ak ñeneen fan la ñu sukkandiku ne ñooñu ay yéeféer lañu li leen di tàqale mooy ki nga xam ne dafa ñëw sukk ci kanam yonent alayhi salaam dugg ci lislaam kooku moom xam nañ ne bàyyi na lam nekkoon jàpp lii waaye loolu ñëwaguñ ci li ma laajoon da ko tontugul <clears throat> su fekkee ne daal am na luy wane ne Abu Talib lam jàppoon fii la ko bàyyee ñëw fekk yonent alayhi salaam bu ko defee dafa am sax laaj yu ci topp de yow bala ngaa laaj nee naa la su ma sañoon nga tontu laaj boobu te am na yeneen laaj yu ci top yow ñooñu danga leen di comparer ak abu abu abu abu abu taalibin loolu moom ñàkk ñàkk xel weesuwul nga gis ku jël jaasam xeex ak Muhammad nga koy comparer ak nga xamante ni dafay aar yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu <laughs> ñàkk xalaat weesu ko Jibril déedéet Oustaz Yahya bu fekkoon ne loolu la xanaa kon ñeneen ñi seen woy yi te ay arab la ñoom tamit xanaa loolu kon mu dugal leen ci lislaam ban jëf la ko jëf xanaa du mbokkoo gi mbokkoo ak moom loolu bul fàtt fàttali ko ne Seydina Hamza <coughs> ci loolu la duggee ci lislaam de avant muy nekk ab jullit dafa ñëw ñu ne ko sa mbokk mi nga bokkal deret fii la toogoon ñu di ko dóor moom bi muy dem ci yonant ak bi muy dóor ki dóor yonant dóoru ko pour l'islam mbokk gi mu ak moom deret moo tax mu dóor ko te boobu nekk bu jullit muy Seydina Hamza mu ñëw ñu ne ko yow sa mbokk bi nga bokkal te moom ab yéeféer la de ñu ne ko ki nga bokkal deret fii la toogoon ñu di ko dóor mu mer ci loolu ne lan moo tax ki ma bokkal deret ñu di ko dóor mu ne kan la ñu ne ko kii la mu dóor kooku te boobu nekkagul ab jullit ginnaaw gi la dugg ci lislaam kon ñoom dañ daan défendre seen deret nga bàyyi xel loolu seen mbokkoo dañ ko daan défendre. waaw dama ne léegi nag yow ci musrikuuna Kuraysi jamono yooyu indil woyu kenn ci ñoom koo xam ne mu ngi tàgg Muhammad indil ma loolu xam nga. lu mel noonu abu talib bu ne wa shakka lahu ismuhu li yajullahu dul arshi huwa almahmudu wa hada muhammadun ndax yéeféer dina ko wax oustaz yahya walid walid ibnu mughira bi mu dégloo alquran lan la wax innahu la ala wa inna alay ila talaawa wa inna alaaw la musmarun wa inna asfalaw la muxdax innahu yaalu wala yuala alay aw kama qaal waaw kii tagg yonent kii tagg alquran ñaari tagg yi lan moo leen kii dafa tagg alquran te alquran yonentu alayhi salaam moom moo ko indi kii diglu alquran yëngal bopp bi ne ak lu mën a xew li indi dëgg la ñaar yooyu lan moo leen utale ustaas Yaxya ba léegi de lii nii tontuwul sama laaj bi ndax lii bu fekkee boog lii day dugal nit ci lislaam nga ne ma waaw ñu xam ne kon léegi nit ki mën naa bind te du tudd baati seede yi dugg ci lislaam mën naa bind ne Muhammad ku baax la ku tedd la sóor arsi nangam ak nangam daal di dugg ci lislaam ndax loolu kon day duggal nit ci lislaam bu fekkee loolu am na nga ne ma waaw sama laaj bi dafay ñëwaat ci sa kanam taxaw diine suleyman ibrahim jam nekkoon kañ la ko sànni ñëw ci lislaam loolu laay laaj bu fekkee nag woy yi muy woy ak défendre bi muy défendre yonent alayhi salaam loolu doy na mu dugg ci lislaam nga wax ma ñu xam ne léegi am na beneen yoon bu ñuy diggee ci lislaam bu bokkul ak boobu yonentu alayhi salaam balaa muy judd la yàlla waxoon ne nii lay tudd wax ko ci téere yu bëree bëri ñoo xam ne bu ñëwee nii lay tudd mu ñëw kii nekk maamam la mën a def rek mooy aar ko toppatoo ko défendre ko guddi ak bëccëg loolu moom wax dëgg yàlla xoolal firawna firawna yàlla fexe ne ba yóbbu ko ci euh, kii Moussa sunu yonentu muusa alayhi salaam yàlla fexe ne ba yóbbu ko ci kër firawna forcé firawna mu yar ko toppatoo ko ànd ak loolu yëpp firawna gëmu ko kon toppatoo nit kese mënuñ cee sukkandiku ne kii ku gëm la. Jibril yow indil ma benn baatu seede Ali ibn Abi Talib benn baatu seede ci baatu seedam dama ne jëfam. yéen ñi inkaar ngeen jàpp ni yéeféer la amuleen dalil sos la ak tuumaal kese ngeen def yow ba léegi ci laaj nga tontu di jël ay misaal dalil laa bëgg boo dul indi dalil man sama bopp sonn naa nga bàyyi ma ma noppalu ko da may indil dalil nga tegal ma ko fii loolu moo gën a am solo man indi na ay dalil du woy kese laa indi yu bare laa dugal ñaata kat laa dugal waa léegi yow si ay dalil laa laaj waaw nahnu abnaau dalail nadulu naduru haytuma daara du ñu toog rek di waxantu rek di sandi di dem jamais boo xamee ñoom jaziratul arabiya fu ñu doon dund bu fekkente ni mushrikuuna yu fa nekk laata ak ozza la ñu gëm ak manaata ñoom xamuñu zul arsh xamuñu loon yàlla mooy mahmud dañu ñëw xam ni yàlla ci turam la dagg jox Muhammad mu tudd Muhammad xamuñu woon loolu ñoom laataa ko Uzza moom la ñu xam ak Manata Jibril bu leen fooyee seeni cerveau c'est très important da ngeen di fooyee ak Zul Arsh est-ce que ñoom gëmoon nañu ni du Zul Arsh boobu mooy Mahmoud est-ce que décortiquer nga wax bi bu baax ak xam-xam ñoom xamoon nañu kan mooy Zul Arsh <laughs> yéemi na Oustaz Yahya man damay laaj yéggooguma fu may indee dalil yéggoo yégg yéggaguma fu may tontee sa laaj loolu bu buñ ci yeggee rek ma indi ko maanaam mënumaa indi lenn wala may teg lenn loo xam ne li ma laaj tontu kooku wala boog nga nga firndeel ne lottu nga ci tontu li ma laaj ñu continuer mais man mënumaa jéggi fenn te tontu góoli nga ne Seydina Ali <coughs> yonentu alayhi salaam bu waxoon ne Abu Taalib aljana la jëm riwaaye yi saxal ko mu leer naññi benn jullit du taxaw di sikki sàkk naan jullit la walla déet fekkoon ne li yonente alayhi wax ci Seydina Ali daa wax ne dinaa indi koo xam ne suba yàlla bëgg na ko yonentu bëgg na ko te nitu ajj la wax ne topp ma mooy topp kooku mu wax ci Seydina Ali bu ko waxoon ci Seydina ab bu dootul sikki sàkk la wala déet lii moom mooy problème bi man nag mënu gumaa séq jëm fenn te tontoogoo sama laaj bi wala nga wax ne lottu nga ci su ko defee ñu continuer naka laay indee lenn wala may tontu li ngay wax te li may te lii ma soxla nii leerugul nga ne fan euh, yan na mooy wax ne euh, xawma ab yéeféer la woon yow yaa ko wax di yaa wax ne ci diine euh, kii la newoon sunuma Ibrahima ci diine sunuma Ibrahima la newoon yaa ko wax de léegi loolu la ñuy laaj kañ la ko wàcc ba ñëw fii. tegal ci samay nga dem déglu leen. demal ci samay audio nga déglu leen dégg nga mais woy boobu nga xamante ni moom laa wàcce woy boobu woy bi ni firi ko sax nga xam ko shakka lahu ismuhu li yajullahu damir bii nga xamante ni mu koy def fan la ko jemale est-ce que waa Quraysh xam nañu loolu shakka lahu ismuhu li yajullahu dul arshi kan mooy dul arshi si ñoom est ce ñoom gëmoon nañ ko ci waa jahiliya huwa al mahmudu wa haza muhammad est ce ñoom gëmoon nañu loolu est ce que loolu seeni ngëm-ngëm la ñoom ñoom manaata la laata ak Uzza moom lañu gëm wa kàddu yi nekk fi ñoom gëmuñu ko du seeni ngëm-ngëm il faut nga xam loolu indil ci seeni littérature wax joo xam ni niroo na ak bii nii indil ma lenn ci seeni littérature li nga xamante ni mooy tegtal ni ñoom xam nañu loolu amuñu tawhid woy bi ni taw tawhid la il faut nga xam loolu woy boobu xam nga tawhid yëpp mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi e, peeg ci subhanallah mooy tanzihullah wa tahmid subhanallah walhamdulillah dégg nga ixlaas lahu lil ibadati kalimatu alhamdulillah ak subhanallah aqida yëpp ci usul lu ñuy jàng yépp mu ngi tenku ci ñaari baat yi léegi indil ma ci littérature arabul jahiliya boo xam ni niroo na ak bii indil ma ko waaw léegi Oustaz Yahya ndax lii dina dugal nit ci lislaam waaw ndax lii képp dina dugal nit ci lislaam xanaa kon de euh, dañ dem jëli nit ñu bari ñoo xam ne wax nañ lu baax ci yonent alayhi salaam mu dugal leen ci lislaam xanaa kon xanaa ko lii ndax dina dugal nit ci lislaam kii nga xam ne mooy oustaz Yaxya loolu laa bëgg laaj lii ndax dina dugal nit ci lislaam ah xam naa ne daal soo moytuwul dañ tege ni foofu sunu loxo waaw ah, léegi leer na ne lott nga ci tontu loolu waaw ah, leer na ne lott nga ci tontu loolu ndax yow saxal nga ne kii ci diine suñu ma Ibrahima la nekkoon léegi nag yow yaa saxal loolu ñu ñëw laaj la ne kañ la bàyyi loolu ñëw fii ngay wër-wërloo kon lottu nga ci tontu loolu. waaw su fekkente ne du waxu naafeq kay kii ëpp na sax wallahi ëpp na sax moom ku xamul boromam xamul mayeewu Muhammad du wax lii nii waaw ndax da bëgg a jàpp ne Abu Talib naafeq la non arrête Jibril euh, ax jibril abyaat yi de abu taalib moo ko bind nabiyu ilaahi yonenteb sunu yàlla ba kon xam ne na bant bu mënta yónni yonent bi xërëm yi yonent bi doon faj kon abu taalib gëmul ne moom xërëm googu moom moo moo yónni yonent bi nabiyu ilaahi kon saxal na yonent muhammad bu joxe ne yonent bi ne kon nabiyu ilaahi wal karimu bi aslihi mu ne ku tedd la ci cosaanam wa axlaaqihi ak jukkoom wa huwa rachidul muayyadu mu ne ku jub la te it ku ñu dëgëral la waaw ca beneen baytu ba mu ne alaa anna xayra annaasi umman wa walidan iza udda saadatul bariyati ahmadu allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asmain mbokki waa Medina mbokku Jaal xaq ñëpp Cheikh Yaxya Touré sëriñ Jibril sama sëriñ ñëw yi maa ngi leen di nuyu baax baax Cheikh Ismaïl xam naa laaj bi ma jëmale woon Cheikh Yaxya laa lay jëmale rek ak képp ku ne ci groupe bi te am ci loo ma mën a tontoo comme leeral ndax rek tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ak noo ko mën a taggee ndax jëmmi tagg googu dong dana dugal ci lislaam waaw waaw ki tagg yonant bi saxal ne yonant bi ab yonant la saxal ne yonant bi yàllaa ko yónni nabiyu ilaahi walkarimu bi aslihi kon xal na ne yonant la te yàlla moo ko yónni te yàlla moo ko yónni mais ki saxal na yonent bi ab yonent la saxal na yàlla moo ko yónni yar yonent bi ci keppaaram te avant yonent bi di di feeñal ak nubuwaam sax euh, am na ay boroomi xam-xam yu ko doon dugal ci ruq xamal na ko kii kat ab yonent lay dooni aar ko sàmm ko ba noon yi duñ ci jot ba noon yi duñ ci jot waaw wax dëgg yàlla man moom euh, mënuma wax xataan ne ci ak jullit la faatu waaye mënuma wax xataan ne ci ak kéeféer la faatu waaw te te yow jàng ci xilaafa jàng ci xilaasu zahab Seydi Xaaji Malik wax ne dañ cee wuute waaw wax ne dañ cee wuute wax na dañ cee wute waaye ka saxal dégg ci lislaam mooy abbas si xaymaali wax na loolu waaw léegi nag wuute am ci ñu bëgg ne ñi wute moom duñ indi seeni lay yi wane ne moom kët ci lislaam la faatu waaw euh, asalaamaaleykum <laughs> wa rahmatullah euh, waaw daal yéen daal maam daal su ma comprendre daal Seydina Alioune moom bàyyam daal du jullit ngeen bëgg a wax def am def ko bi yéefar kii moom du saxal di jullit la wax ngeen ko bàyyi bu doon jullit rek lu moom lu leen di wàññi <laughs> bu doon dem jullit lu leen di wàññi wàññi dara te itam yaakaar naa Seydina Alioune moom jullit ku doon jullit rek moo ko war a mën a am waaw ni mu baaxee ni amee ay may ku doon ab jullit rek moo ko war a maam te yéen ko bàyyi mu doon jullit rek àjjana moom yaatu na ñëpp xaj ngeen ci. <laughs> dama ne alaaji Malick téere tijaani bu tudda irsaadatu rabbaniya sarhu hamziya fu muy wax kuntu ana wa aliyun kuntu ana wa aliyun nuuraan loolu doy na sëkk sëkk sëkk sëkk waaw ndax leer boobu dina jaar ci ab non yéeme na yéeme na quoi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waa maj ma waxul jaal xaq ñoo leen ziyaare ñëpp euh, doon suivre bu baax waxtaanu euh, alpha oustaz alpha sall ak oustaz yahya touré waaw seen audio yi am na solo trop xam naa daal suñ ko mënoon dajale aussi dina am solo parce que débat bu intéressant ngeen def sànq waaw man dama si am benn benn tax xat bu ndaw rek mooy dafa am lu oustaz Ismaïla wax lu am solo lu nga xam ne ci bàyyi xel parce que dafa wax euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax oustaz Ismaïla Ismaïla Gueye ngay ziar euh, dafa ne yonente bi loolu mu doon def mooy lu mu doon wax ne nit bi waaj génn àdduna da nga war da dafa da ngeen ko war di wax si côté am wala lu ko jege ngeen di wax laa ilaha illallah ne yonent bi loolu doon def Baba Taalib euh, doon sukuraat moo tax mu wax laa ilaha illallah mais bu doon yonent bi dafa bëggoon mu tuub kon da koy waxal ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon loolu la koy wax loo mais la lu mu laa ilaha illallah kese la doon wax kon nga xam ne foofu mu dafa jàpp ne Aba Taalib boobu nekkoon na ko gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi tamit buñ ci mënee xoolaat mooy fu demee ba yonentu yàlla Moussa mën a ñaan yàlla subhanahu wa taala pour mu def feeram bi Haaruna pour mu nekk yonentu jàppale ko si mission bi ki nga xam ne dafa jàppale yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam muy Aba Taalib ci mission bu mu def di ko doon euh, kooku dem bay waaj génn àdduna yonentu nan lay ñëwaatee si noppam di ko wax na ko ay euh, di defal baatu seede yi te ba muy dund est-ce que wax ko ba muy dund la wax ko loolu Euh, loolu dafa dafa am tanaaxu tanaaxu daal yu nekk si wax yooyu ko moo tax man lu ma gëm mooy Aba Talib gëmoon na comme lu Ismaïla wax man loolu laa gën a jàpp mooy gëmoon na yonente bi gëm yàlla subhanahu wa taala yonente bi ko doon wax mu wax laa ilaha illallah parce que kii sukuraat baax na ngay dégg ñuy wax say côté wala di wax laa ilaha illallah mais def ko woon pour tuubloo ko ndax xanaa bu ko doon tuubloo du bàyyi ba muy bay di ko tuubloo foofu <laughs> di ko wax pour mu wax baatu seede yi xam loolu tam dafa xaw a xaw a waar quoi mais daal ñu ngi leen ba waxtaan bi am na solo. waaw Alhaji Yaya man de seen audio yi ko topp sax damay tëb rek di jël di tëb di jël waaye ay ree damay jàpp benn instant damaa xam ne àjjana ni muy yaatoo moos nga xam ni Sénégal feesuñu ko waxuma laa àdduna bi yëpp jullit ñi yëpp ñu lànk rek ah nii daal moom daal ndoo doonul jullit rek së të te ñu ko bàyyi bu dugg affaire moom yaatu na tabaarakallah Cheikh Ismaïl Gueye am na solo lool macha allah waaw man de xam nga dama jàpp ni moom Abu Talib yàgg naa dégg ay boroomi xam-xam di ko wax ci sayyidina Muhammadu ay kéemtaan depuis douze ans ba quarante neuf ans ñoo nekk kon gis na ci sang bi ba tàyyi ay kéemtaan bi mu juddloo lislaam itam noon yi d'accord dëkk nañ koy yu baree bare ci ay jafe-jafe waaye nag rusoon nañu Abu Talib mbi ci kanamu sayyiduna Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mu làq ko guddi làq ko ba ci waaye lépp ànd ak lépp ànd ak lépp ànd ak lépp baat bi ñuy wax pour dugg ci lislaam tasee guñoog fu ko Abu Talib waxe nabiyu ilaahi xalimtu bi anna diina muhammadin tagg ko ba tàyyi tagg diineem ba tàyyi wax ci jikkoom ba tàyyi ànd ak lépp nag loolu bokkagul ak kalima shahadatayni gi ngay wax pour dugg ci lislaam dugg ci lislaam moom dafa am baat yooyu wax ak loo mën a namp baat yooyu ngay wax waxuñu baat yooyu ngay fas waxuñu baat yooyu ngay xam rek ni pat waxuñu baat yooyu euh, danga koy prononcé waaw kenn dong la ñu dogal ngànt mooy koo xam ne mënta wax waaye dogu na pour dugg ci lislaam moo moo moo moom la borom téere ba doon wax koo xam ni dañ ko wax loo baati seede yi mais lan la ñuy dafa dafa tëlee wax koo xam ni boo koy waxloo fii daa dër pour mu wax daanaka mën naa diire ay minute pour mu wax nag ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah toog na nii am engagement pour wax ko mais yéen a ngi tàmbali ni ko waxal ashadu ma naan ah, ah, ah, ah dégg nga ko ba naan ashadu nga dem ak moom ci an mu diiriwaat ci même temps boobu wala bu ko ëpp ba ba ngay àgg ci ashadu anna muhammad rasulullah temps bu gudd boobu bu fi bakkanam rotoon dañ ci lislaam la ne parce que tëli moo ko ko tey wax waaye dog woon na engagé woon na pour wax ko amaana koo xam ne fiñ bi neuf ans dund nga koog l'islam def nga lépp nag teral l'islam def nga lépp nag ngir défendre l'islam waaye nag tasee guñoog foo waxee baat yii ak loo fi mën a waxaat ak loo fi mën a defaat buñ nee ci l'islam la nekk ndax wax jooju ndax jëf jooju ah ay tubaab a ngi fi léeg-léeg ñu wax ci l'islam lu rafet bi ñaata yi boroom xam-xami tubaab ñu bind ci taarix di wax ci ay kilifa yu fi mës jaar buñ agsee ci sayyiduna Muhammad lu rafet la ñuy wax ci moom ñooñu kon xanaa mën nañ leen a dugal rek ne ñoom itam wax na la rek ci yeneen bi waaw Oustaz Yaxya ñu ngi lay ziar bu baax ah, dëgg la wax bi dafa xaw a contradictoire ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul ñëw di woote islam euh, ki nga xam ne moom bàyyam la jege ko trop ci côté direct di ko protégé ci li nga xam ne du du dëgg moom xam na ne li mu nekk ni dëgg la xam ne ne kii yonente la yonente yàlla la mais su demee ba di ko protéger dina xam ne kii nii même bu ne au delà de mbokk sax xam ne lu mu nekk dëgg la mais nan lay gisee dëgg ba pare du si dëgg tànkam yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam nan lay ànd ak nit te mu xam ne kii nii gëmul li muy woote ni ba pare di ko protéger mu nangu protection boobu ba pare bàyyi ba kooku di waaye génn àddina mu taxawaat su di ko di ko waxal baatu seede man loolu dafa des sax dafa des sax xelu xeluwul quoi pour man daal lu ma gëm daal xam naa baatu laa ilaha illallah daal la doon tudd pour mu bëgg ko mu koy wax si làmmiñam parce que dañuy wax ne kuy waaj génn àdduna loolu di ko tudd wala mu koy tudd si làmmiñam lu lu baax la quoi loolu kese la mais man gëm naa ne euh, Abu Taalib ku gëmoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tamit ku baax la waaw wax dëgg fa yàlla liggéey na liggéey bu rëy parce que protection moom dafa yonente moom loolu bu ko yàlla fayee rek si àdduna yi gën a kawe lay nekk. waaw ndax euh, charte la ci ngëmug jullit foog mu bérél ko ngëmug jullit te boo seetloo abu taalib bi yonent bi ñëwee moom dana ko rek waxal laa ilaha la dafa mel ne moom avant muy xarxarle daan na wax ashhadu an laa ilaha illallah ndax laa ilaha illallah rek dugal lu dugalu kenn ci lislaam te yonent bi baat boobu la ko wax maanaam yonent bi kon dafa mel da doon jëfandikoo ci talqin ko laa ilaha illallah waaye talqinu ko laa ilaha illallah pour mu dugg ci lislaam parce dafa mel ne kon duggoon na ndax laqinu mawtaakum laa ilaha illallah loolu tax yonent bi doon ñëw pour wax ko mu wax laa ilaha illallah waaye man li ma jàpp mooy moom gëm na yàlla ndax aar na yonent bi ci lu ne waaw mais ko euh, koo xam ne gëm gën a yonent bi yàllaa ko yónni gëm gën a yàlla yàlla moo ko yónni kooku lan moo la dese lan moo la dese te du te du gëm loolu mukk te du ko wax ci wet maanaam yonent bi sala Abu Taalib du gëm loolu te te boo seetloo ilay wanal ne lislaam da ko nëbb gëm na am na lislaam waaye da ko nëbb Hmm, bi ko yonent bi wax laa ilaaha illallaah abyaat yooyu mujj sadd tudd na ci su ma ragal woon su ma ragal woon ñu ma kon kon gëm na waaye da koo abu ah, abubakar loolu jullit lañ koy defal alladi aslama waaye lu gën a yéene aliyun ci boppam moo ko sàng kafan ko suul ko comme jullit loolu mu arrikuuna bindi nañ ko ndax yéeféer dinañ ko defal loolu talkiin ko la laa ila ila ila laa ilaha illa ba pare sang ko takfiin ko suul ko comme ni ñuy suulee jullit mais loolu dafa yéeme dafa yéemu c'est-à-dire les réalités ñëw ñëw ñoo weddi loolu amut même ayaat yi ñuy wax pour saxal loolu mais aaya bi ak aaya ñaari aaya bi ak faatu yenente ñaari eh, eh, Abu Talib ñaari ñaari eh, ñaari ñaari kii moo ci nu mu tuddee ñaari at moo ci dugg vraiment vraiment vraiment vraiment nañ ko nañ ko yéene la àjjana rek xoolal lii ki nga xamante ni kooku mooy Muhammad Jarir at-Tabari ci téeréom 630 safa bi sazan an salman kaala sami'tu rasulallah dégg naa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul kuntu ana wa aliyun nuuran bayna yaday illahi comme nu mu nekkoon ci musnad ahmad man ak aliyun dañu nekk leer ci kanam yàlla an yaxluqa allahu aadama bala mu binde aadama arbaatu achara alfa aman quatorze mille falamma xalaqa allahu aadama bu mu bindee adama kasama zalika nuuru jus ay ni mu jël ñaari nuuru yi seddalee ko ñaar rakban fii aadama mu def ko ci aadama jus ana beneen jus ci man la wa jus on aliyu abi talib fa nuurul haq maana naasilun haydama nasal nee na leeru dëkk mu ngi ànd ak ñun muy wàcc ak ñun jógee ci ndigg dem ci ndigg kon Aliyun ak yenente yenente nee na ñoom ñëpp leer la laata ñuy bindi léegi ñu bëgg a leeru leeru yenente dem ci baayam dégg mu def foofu sell waaye bu aliyu nag ñu sobel ko loolu dafa yéeme loolu dafa yéeme waa koy Cheikh Ismaïl Gueye ñu ngi laa koy nuyu baax a baax baarakallaahu ay saara yu pertinent ngay indi noonu am na solo aw yooyu yëpp de ay gendiku la yuñ mën a bàyyi xel ay mulaaxasa malxuusa la waaw waaye gendiku yooyu itam yenn ni gendiku day tege ci wetam rek yoo xam ni boo nee moom gëmoon na moo taxoon bi muy sukkuraat sallallahu alayhi wa naan ko waxal laa ilaha illallah sidina muhammad sallallahu alayhi wa fekkoon ni wax laa ilaha illallah ngir mu mujj ci làmmiñam rek waaye moom kay boo koy waxloo fekkoon na ko ci lislaam ay la yéwén du ko du ko du ko jaral boobu coono benn ñaaral bi mooy faleen seeni néew laa ilaha illallah ki ñu ko santoon mooy ki nga xam ni dangay toog ci wetam naan laa ilaha illallah waaye néewuñ la nga toog ci wetu kii sukuraat naan ko waxal laa ilaha illallah loolu dañ koy bañ sax dañuy bañ sax nga toog ci wetu kuy waaj naan ko waxal laa ilaha illallah ndax dañuy bañ mu ne la waxuma mu ne la waxuma ba noppi faatu njortu du caa rafet moo tax dañoo bëgg rek boo toogee ci wetam neel laa ilaha illallah bu ko waxee nga bax bu ko waxee benn yoon nga bax parce que mu mujj ci làmmiñam lañ bëgg bu fi waxaatee leneeni àddina nag nga delluwaat te sa laa ilaha illallah te loolu amul fii fii liñ fi gis mooy sallallahu alayhi wa sallam toog ci wetam naan ko bàyyi laa ilaha illallah mu ëllëgee ma layoo ci ak sa borom loola lañ ci gis dégg baax na gépp baax na taxawu na sallallahu alayhi wa sallam ba tàyyi waaye nag duggul woon ci lislaam ok alaaji a ngi Malik mais mais liy waaye duggul ci lislaam anamu ana lan mooy waaye duggul ci lislaam man damaa gisagul lenn loo xam moo dëgër liy wax ne wan ñëwagul ci lislaam su fekkee aay ñi dëgërloo kooku moom dafa jiw yoo waaw aay yi nga wàcc Madina te aay euh, aay yi jàng yëpp moom mi nga wàcc gannaaw bi mu faatoo ñu bëgg koo yóbbu ci faatuk faatuk Abu Taalib aay yooyu ma lu mu gis mais bu dee xadis yeet xadis moom mën naa wér mën naa bañ waaw bu dee xadis am na xadis bu saxal ne Euh, Abbas wax na ne yonent bi man dégg naa ma wax laa ilaha am na xadis yoo xam ne nag wax na ne waxu ko kon xilaaf am na foofu kon nag euh, du yo du yomba du yomba dàq de waaw te mu dee ci mu dee ci jullit moo gën a moo gën a neexal mu dee ci kéeféer ndax koo xam ne avant ñi koy yónni yow gis nga ne ci ab yonant lay doon nga mënoon koo kutt mënoon koo rey mënoon koo def nekk defoo ko di ko aar yëkkati ko ti ci sa njaboot ñi dema dema dem ñi dema dema dem Ali ibn Abi Talib mi nga xam ne xale bu ndaw la bi muy gëm yonent bi Abu musu koo bundu ci gëm gi nga xam ne Ali ibn Abi na ko yonent bi sallallahu alayhi guddi ak bëccëg Ali di fanaan néeg yonent bi ngir aar yonent bi di àll bi di di xaraji te musul wax ne musul wax àll yi ne kii nga àndal kat bul ànd ak moom ndax lii la jëm jëm indi dafa wuuteeg suñ diine maam maanaam musul wax lenn loo xam ne dafa ñaawal jëme ci diine ji ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa de tagg diine ji rek waaw nabiyu ilahi wal karimu bi aslihi waaw wa axlaaqihi wa huwa rachidul mu ayyad ci tagg yonent bi rek la def waaye xasu ko benn yoon xasul diine ji benn yoon te it béral ne laa ila ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu an muhammad rasulullah du sart te bu fekkoonte woon lu jullit yonent bi bu agsee danaan ko waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu an muhammad rasulullah waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, Cheikh Malick Mbaye boole ñu ngi lay ziar bu baax euh, mais mbir mi nag mbir bu mbir bu yéeme na daal mbir mu yéeme na comme ni ñu ko jàppee ne lu yéeme na ñuy xool yonent yàlla noo euh, ba mu demee ba defar gàllam ba nar a dem gis doom ji yëg si kaw montagne amoon na yéene pour mu dugg si gàll pour mucc te doom jooju boo xoolee gëmul woon baay ji <laughs> gëmul woon baay ji mais baay ji am na mënde pour jéem ko dugal si gaal ko mucc ma yàlla def na ko moom innahu amul xayru saalih mu bàyyi mu dem mais yonent bi sallallahu bi nga xam ne moom mooy rahmatan lil alamin ki nga xam ne moom mooy yërmande de toute kooku nan la mën a nekk ak benn benn bàyyam bu nga xam ne ba mu amee douze ans ba quarante neuf ans quarante neuf moo ngi nekk ak moom nekk ak moom di ko protéger mais kooku dem ba ba ba dee ci kéefër mu ngeen ko jàppee mais loolu tey dafa dafa dafa dafa yéeme yow nan nga mën a protéger benn benn prophète prophète bu nekk yow pendant ba nga amee douze ans ba quarante neuf ans yow munoo ko sax convaincre mënoo convaincre sa sa baay boobu pour mu dugg si islam ah? amoo sax capacité pour ñaan sa borom sax yàlla def ko mu duggal ci mu mu dugg ci islam ki nga xam ne gis nañ fi Moussa ba mu ñaanee yàlla def euh, Haaruna pour mu nekk pour mu nekk profet yàlla defal na ko yonent sa alayhi wa sallam baayam boobu sax mënul sax. ñaan yàlla subhanahu wa taala sax mu dugal ko si islam exemple laa la jox rek dama la bëgg a won ne kii nii mujj na gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam noonu laa gëm te tamit yow da nga leen dafa wax baatu laa ilaha illallah est-ce que baatu laa ilaha illallah kese kese moo dugal si islam voilà parce que ñëpp ñëpp ruwaay boobu la wax da nga waxal benn kalima laa ilaha illallah est-ce que laa ilaha illallah kese moo lay dugal si islam mbokk yi maa ngi nuyu di ñibbisi naa maa ngi sama kër Euh, waaye jot ojo yi ma fi fekk bari na lool am na yu ma jot diglu mais bu ñu fàtte ni débat bi nekkul que ni Abu Talib xamoon na ndax yonente bi ab yonente loolu loolu wérante wuñ ko xam nañ ko bu baax a baax xamoon nañ ni Abu xam na ni yonente bi ab yonente la loolu xam nañ ko waa Màkka xam nañ ko waa Medina yahud ya fa dëkkoon xam nañ ko ñu doon xeex ak bi ñu bëri xam nañ ni kii ab yonente la yàlla moo ko yónni néew nañu ñu doon xeex ak yonente bi te xamuñu woon yonente bi ak ko yónni kon Abu Talib kay amul sikki ne moom xamoon ne ne yonente bi yàlla moo ko yónni loolu dugg na ci gëm na wala gëmul ndax wax na baatu seede wala waxu ko ndax doon na julli di ànd ak yonente yàlla Muhammad wala daawul que julli ca Kaaba ga ci jamono ci diine yonente yàlla Ibrahima bokkul ak julli ci ay yonente bi ànd bi ci diine yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yooyu bu ñu jaxasee problème bi ñaar nañ ci def ndànk yooyu moom bokkul xam nga ah yonente bi su waxee ni euh, moom su dutoon moom mooy euh, euh, Abdul Muttalib ak Abu Talib kon fii darkil asfali lay nekk waaw parce que fii darkil asfali moom moo gën a métti ci safara mais safara yi moom juróom-ñaari safara la wa inna jaama wa inna jahannama la mawidahum ajmaina laa safata abwaabin li kulli baabin waahidin minhuma maqsum kon donc loolu ay détails la yoo xamante yaakaar naa ñu def ci ndànk loolu moom la jëra def ndànk mais débat bi daal du question que Abu Talib xamoon na ndax yonente bi yonente la wala du yonente loolu xam nañ ko bu wér ne Abu xamoon na ni yonent bi moom ab yonent la problème bi nag ndax dugg na ci lislaam ak dugg ci waaw gëmoon na wala gëmul ndax gëmoon na yonent bi li yonent bi doon waa woote ndax gëmoon na ko wala gëmu ko foog naa foofu mooy débat bi waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Mbay boole ñu ngi lay siyaare soo jóg bii day wax ji lépp lépp lii la ci laa nga jëm defal lislaam kenn du ko wér lu ne defal na ko lislaam waaye daal tëj tëjseegu ñëw fu ñu fu fu mu tudde baati seere yi loolu daal wax dëgg yàlla gisaguñ ko ànd ak ni ñu ko yéene nag yéeme na waaye gisaguñ daal laaj daal xëy na dugg ci lislaam ak nu mu ci duggee neexutu tontu bi ànd ak nag moom liñ nett na defal na ko siraage dim defal lislaam ak sayyidina Muhammad kenn du ko wedd lépp lépp la ñu dëggal de jàng na suñu bët waaye daal fu fi baati seere yi moom dëgg dëgg gisaguñ ko nag waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa imam Moustapha Diop ñu ngi ziar bu baax waaw mbir bi daal xam naa lii nii histoire bii nii tey bu ko benn ki nga xam ne gëmul islam doon dégg dina tax sax mu gën a xam ne suñu suñu diine bi daal doy na ak tam suñu porfet bi daal euh, nan lay nekkee rahmatan lil alamin waaw mën na poser la question boobu parce que dama mos a benn débat euh, bu nga xam ne benn chrétien la ak benn musulman chrétien bi ne moom Isa mooy sauveur de l'humanité musulman bi moom di dëggal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, sauveur de l'humanité waaw te loolu mooy dëgg rahmatan lil alamin wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil muy dëggal loolu te loolu mooy dëgg mais imaginer ki nga xam ne à l'âge de douze ans ba quarante neuf ans moo ngi nekk yow protégé su lu nekk kooku yow mi profet boobu nga xam yaay rahmatan lil alamin tële nga dugal ko si diine boobu ngay woote yow tey loolu buñ ko nettalee tey benn yëfa dina nañ seen prophète bi tëlan yow ki nga xam ne bàyyam bi coono bi mu daj yëpp seen yonente bi sax tële na pour sax dugal kooku ci islaam ak coono bi mu daj yëpp protéger ko kon daal lu yéemal daal lu yéemal moo tax man daal gëm naa ne Abu Taalib daal gëm na yonente bi waaw gëm na yonente bi te baatu seer yooyu ko mu doon wax noonu da ko wax pour mu mujj si làmbañ bi rek comme ni ko Oustaz Ismaël wax daal loolu laa laa gëm daal. alxaaji Malick Mbaye boole ki daa ki wax daal ne yonanti bi yàllaa ko yónni kooku mën na am bis dem na ba ca àll ba dem na ba ca àll ba moom ak boroomam dongo mu nekk fa seede ñaari seede yi seede ñaari seede yi bu boobaa yàlla dafay accepter ngëmam bu boobaa yàlla dafay accepter ngëmam waaw ndax du sart ki ñu yónni nga seede ci kanamam du sart nga wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu an muhammadu rasulullah ñu ne fa nga wax ci kanamu nit ñi ñu soog koo nangu déedéet yéeféer bi dem ba ca àll ba moom dong digganteem ak boromam xelam nekk ci yàlla mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kooku ngóom liñ ko accepté su fekkee mënul wax ñaari seede yi waaye gëm na ne yàlla moo bind asamaan ak suuf waaye tële na ci wax ko parce que jaamu ko woon avant kooku dañ koy accepté ngëmam waaw waaw te jàng nañ ci alquran rajulu min ali na koo xam dafa euh, la mais dafa dafa dafa nëbb ngëmam xoolal Asiya xoolal Asiya soxna Firawna bu yàlla nettaliwul woon ne Muusa la gëm kenn du ko xam bu yàlla nettiwul nettaliwul woon ci alquran ne Muusa la gëm kenn du ko xam waaw loolu dafay am mais ki ñemee wax ne ki am ngëm-ngëmu wax ne nabiyu ilaahi wal karimu bi aslihi kooku kooku lu def ki gëm ne yàlla mii moo yónni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam joxuñul yàlla la wax comme gëm na yàlla mooy borom aras gëm na itam yonante bi sallallahu alayhi moom yàlla ko yónni kon nañ rafet njort ci ne seede ko Moustapha ndax leer dina jaar ci ndigulu mushrik dama la ko bëgg a laaj ndax leer dina jaar ci ndiglu mushrik loolu am na solo trop su fekkente ni leer dina jaar ci ay abu taalib mushrik la kon leeru aliyun jaar na ci ndiggam ci hadis yu wér yoo xam ni ñëw na ci masaadir yu bare ba ca des su fekkente woon ne moom euh, seedewul woon ña duggul woon ci lislaam yonent bi du xaar ba muy bëgg a faatu mu di ko sa ñaari seede mu di ko sa laa ilaha illallah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee eh, inna allaha yaqbalu tawbata abdin maa lam yugargir féeg nit ki àggul ci xar-xarle bu tuubee yàlla yàlla baal ko mais yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy wax naan bi muy wax eh, Abu Talib di ko talqiin laa ilaha illallah kooku mi ngi ci xar-xar mi ngi ci xar-xarle parce que dem na ba nga xam ne làmmiñam sax munta wax bañ koy dégg parce que ruux gi muy commencé di génn ba eh, abbas nee na pour ma ma dégg li may wax damaa jël sama nopp taf ko ci jimiñam mu wax laa ilaha illallah ma dikk wax ko yonent bi mu ne ma déggu ma ko te digg déggu yonent bi laa ilaha illallah ci làmmiñu eh, abu talib du ci sart de waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah yaa Oustaz Yaxya ñu ngi lay ziar bu baax waaw sa sa kii bi am na solo sa taxali xaar am na solo mais fii dama fi am question dafa fi am question man parce que damay posé question rek mooy bii nii li nga expliqué fii ne imam Ali moom moo ko moo ko denc moo ko moo ko jullee affaire yooyu boobu ana yonante bi yonante bi pourquoi moom jullewu ko pourquoi denc ko te gis nañ yonante bi denc ku gën a sori boo jullee laa bu wax sax jullee ku gën a sori ki nga xam ne mooy buuru xabasa ba woon bañ ko bañ ko waxee na ko génn àdduna dafa jullee euh, kii nga xam ne moom bàyyam la protéger ko de douze douze ans à quarante neuf ans génn àdduna euh, yonente bi moo ko jullee wala na la demee wala ali moo ko jullee euh, na la demee daal parce que foofu aussi bu ñu leerloon foofu aussi dina am solo bu ñu xamoon kan moo ko deñ kan moo ko jël aussi dina gën a am solo waaw Aboubacar loolu salaatul wahsha loolu ki nga distance la mais yenente mu ngi teewe léegi yenente moo xam lan moo waral moo xam lan moo waral mu yónnee Aliyun waaye lan moom leer nañu loolu moy Abu Taalibin indi woon naa xadis ci kaw mu'minu aalu firawna nëbb na imaanam mu fësal shirk mu sobee Muusa abu taalibin noonu la nekkee tamit ci biir Quraysh dafa am loo xam ni bu ko fësalee rek problème am te indi naa ay riwaayaat yu wone ni yenente bi nga xamante ni abu taalib gaañu na ci la commencé tumuranke jibril ñëw ne ko tu kila la doon dimbalee nekkatu fi léegi fexeel nga toxu dem waaw loolu il fo ngeen comprendre ko waay aliyun kumu ki nga xamante ni yenente nee na man kuntu mawlaahu fa haada aliyun waliyuhu anta minniya bi manzilati haruna min muusa teewaayu aliyun mooy teewaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa léegi gàllankoor bu ko teree egg foofu waaw sabiha am na solo am na solo mais daal bu wóoree ne rek imam ali moo ko jullee moom kon wóor na ne jullit la parce que imam ali nu mu nekk nekk waajuram euh, sañul jullee waajuram bu nga xam ne euh, dafa dee ci kéefeer sañul loolu kon bu wóoree ne moo ko jullee rek kon kay loolu riwaaya bu leer bu wóoree ne moo ko jullee kon nañ jàpp ne jullit la rek waa di ko wax euh, radiallahu anhu loolu alquran a ko wax alquran daf ñu tere ñu am cofeel ñi nga xamante ni dañuy bokkaale yàlla ay mushrikuuna lañ nee na su fekkente ni sax moom seeni jur lañu walla seeni frère mbaa ñu leen jege sax bu leen ko def lu tax yenente di def loolu di woro ak alquran walla imaamu ali di woroo ak alquran loolu dafay yéeme <laughs> amee gis nga layal aliyin eki eh, abu talib ni jullit la moo gën a am preuve que ku koy layal ni yéefeer la ndax man ma ban intérêt lañ ci am ba di jël aaya boo xam ni madani la di ko ko foofu ngay xam ni mbir mi politique dugg na fa li nga xamante ni mooy politique umayat yi waaw ah ngëbu nit moom fokk fokk maanaam nit pour mu nekk julli ci jamono yant bi fokk mu julleek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu sart de nit mën na nekk julli ci jamono yonent bi julli nekk jullit ba faatu te musul julli ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu am du sart euh, warxatu nu nooy fal warqa ibnu nawfal euh, kañ la wax ñaari seede yi kañ la wax ñaari seede yi ak ci kan la seede ndax du jullit kon du ci charte maanaam julli ci ginnaaw yonent bi yooyu yëpp mën na ko def gis nga ngëm lu sacré la ngëm moom lu yéeme la ci xol lay tàbbi nit ki nag mën na koo def xol diggante xol ak yàlla doo nga xam la fa nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki daara ji groupe waxul jaa al xaq wa saaqa al baatilu inna al baatila kaana sauuqa seen bokkum taalibe Serigne Moustapha Diouf nekk fii ca Adjamé Abidjan di nuyu ñëpp di seer ñëpp nag xam naa di rafetlu lool nag débat yi nga xam ne mi ngi fi daw ca démb sax laay wax ba léegi macha mel na ni daal ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ di jàng moom mel na ni euh, xam-xam feeñ na ci ñaari côté yëpp nag ci ñi ko seq mu mel ni. ni ko mbokk yëpp waxee rek mënuñu daal lu muy rafetlu débat bi ndax it nag xam-xam moom lii rek lay jariñ bu ñaari boroom xam-xam werante ñaare bu ñu uutee sax du ma wax werante waaye bu ñu uutee ci masala rek ñaare dongo yooyu jàng ñoom danañ ca mën a jàngee dara mu mel ni nag débat bii nga xam ne moom moo dox ci diggante docteur Yaya Touré ak mbokk yi ko seqal ak mbokk yi ko seqal dafa mel ni moom wax dëgg yàlla xam-xam génn na fi feeñ na fi bu ko defee nag ñoo ngi koy rafetlu bu baax. waaw xam naa ñun nag liñ ci taxawaay biñ ci am daal mooy dafa mel ni daal aboo Taalib moom defoon ko ab jullit moo gën a yomb moo gën a gaaw moo gën a noppale comme ni ko mbokk yi waxee nag ne lan mooy preuve waaye ñàkk am preuve googu mooy preuve bi parce que nag ñun ñëpp nañu bàyyi xel ne ku ci amoon tey sa njaboot ci sa biir kër muy woote ci kër gi loo xam ne du dëgg te d'accordoo ci nga ne lii muy woote du dëgg yaakaar naa du ngeen mën a dund fukki at ci kër gi te kenn déggu leen kon ñàkk dégg googu rek mooy preuve kon kii li doomam ji doon woote dëggal na ko ci ni ma gisee man su ko defee nag bi ci des itam li tax ma wax ne defoon ko ab jullit mooy gën a noppale te mooy gën a gaaw comme yéen ñëpp d'accord ngeen ne moom dafa bëggoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam it bëgg ko lool cofeel gu metti dox seen diggante damay wax ne loolu bu fekkoon ne loolu rek ci lañ yem dañuy daal di wax ne kon almaru mahaman ahaba bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne nit ku nekk euh, wax ma sa xarit maanaam wax ma sa xarit ma wax la sa jikko kon dañuy xalaat ne kon defoon ko ab jullit mooy gën a noppale parce que hadis bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne nit boo ko bëggee ëllëg fu taxaw nga taxaw fa yaakaar naa ñoom ñaar bu fekkee ne kenn mën na cee soppi moroomam maanaam yonente bi soppi woon Abu Talib def ko ab jullit fu jëm jëme ko fa mooy gën a yomb Abu Talib di soppi yonent bi leneen ëllëg fu jëm jëme ko fa te bu fekkee cofeel dox na seen diggante moom yéen ñëpp dangeen di daal di d'accord kon ci ne lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon te wax ko ay yoon sax benn bi mu ne almarhu man maha man ahaba benn bi mu wax ne man ahaba qawman xusira maahum aw kama xaal bu ko defee nag kon defoon ko ab jullit dafay gën a gaaw te dafay gën a nopp noppale bi ci bi ci des itam comme noonu ñu ko waxee te mbokk mi sunu sëriñ sëriñ Mansour wax ci ay yoon xam nga di waxal laa ilaha illallah mu wax la leen du ma ko wax ba pare expliquer la tax mu ne duma ko wax loolu bari na ba léegi ci malade yi ngay gis ci jamono ji ku ci feebar ñaare nga ne ko waxal nangam mu ne la duma ko wax surtout la ilaha illallah dalay wax carrément duma ko wax donte mbokk mi nangu na ne bul ko bul ko wax waxal da ngay toog ci wetam di wax di wax rek pour bula déggee yooyu yëpp ay texte la waaye daal ñun daal li ñuy saxale ak njulitam li ñuy saxale ne julit la ñun mooy li nit ñi di wax ne fu ñu ko teg ñàkk a teg fenn googu mooy saxal ne jullit la parce que bu bu jëloon opposition bi ñeneen ñi jël comme Abu Lahab ak ñi demee ni ñoom bu fekkoon ne taxawaay boobu la am kon du nit ñi kenn du warante ndax jullit la wala du jullit te itam nag xalaat bi mu joxe moom ak li mu lay wala li nga xam ne moom la sayyiduna aliyun karramallahu wajhahu wax ne moom la baayam defoon te mooy dafa tuub gëm yàlla ba pare di ko nëbbu ndax mën a protéger yonent bi loolu it luñ mën a dégg la te ku xam histoire itam xam ne suyee na ci rôle boobu suyee na ci boobu nga xam ne am na lu yonent bi daan xam loo xam ne la ko ko may ay nit ñu daan fekk seeni waxtaan ak seeni réunion dikk di ko ko xibaar boobu nag bu feeñaloon ne carrément man julit la mën naa am jataay yooyu du ko mën a am ak ñoom ba di ko xibaar si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ala kulli xaalin daal ñoom kenn ku na xam na ne juboo nañ juróom-ñeenti at yépp mosuñoo am problème mosuñoo xeex mosuñoo xuloo loolu moom kenn ku ne mën nga koo saxal kenn ku ne it mën ngaa saxal ne ak cofeel doxoon na seen diggante ma yaakaar ne nag boo amee sa doom muy woote ci sa wala ci sa loo xam ne du dëgg te d'accordoo du ngeen toog juróom-ñeenti at wala fukki at te kenn déggu leen ma yaakaar ne itam comme yonent bi ni ko mbokk yépp jànge bi ko suñu borom waxee ne ko maanaa laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmil axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasula walaw kaanu abaahumu aw abnaahumu aw ixwaanuhumu aw asiiratuhum ulaika kataba fi xuluubihim al ba mu jeex comme ni ngeen ko jàngee yéen ñëpp ma jàpp ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ñàkk fayda bay dem di fekk koo xam ne gëmu ko tey gëmu ko ëllëg te du ko gëm ba mukk muy négocier ak moom jëmale abadan su ko defee nag wala kulli xaalin uuteeg borom xam-xam yi moom dañ ko fa fekk te dañ ko fi bàyyi te comme ni ko mbokk mi waxe nee na moom lii mooy position euh, premièrement moom la gëm parce que moom la sëriñam wax moom la jàng moom la jàngale yooyu yëpp dañ ko koy nangul ndax bu bu doon ne sëriñ ki ko wax du sëriñam su ko neexee mu bokk ak moom gis-gis ca loola waaye daal li ma xam daal mooy man li ma jàpp mooy li nit ñi yaa li nit ñi wax ne li nit ñi wax ne xamuñu lu mu doon man foofu laa sukkandiku ba nekkoon jullit la ndax yaakaar naa ne bu doonoon leneen lu muy jullit duñ dund juróom-ñeenti at fukki at ci kër gi te nit ñi xamuñu li mu doon kon ñàkk a xam googu rek mooy wane ne jullit la bi ci des itam ñi wax ne indil preuve comme sunu bàyyi abbas radiallahu taala anhu moom seede na ko nee na man dégg naa ci sama nopp moom mu wax mu tudd baati seede yi ah loolu itam ñun du kum neex nga sukkandiku foofu nag ndax kenn dootul wax preuve amul nag comme bàyyi abbas moom nee na dégg na ci noppam mu wax baati seede yi loolu it ku ko kum neex nga weddi ko waaye kum neex nga dëggal ko nag ndax itam nag abbas euh, wax dëgg yàlla am na droit wax ci diggante boobu su ko defee nag ñun daal ñoo ngi leen di félicité yéen ñëpp nag di lu waxtaan wi ak débat bi daal wax dëgg yàlla xuloo amu ci saagante amu ci jéggiwul dayo teg nañ ko ci xam-xam ba nga xam ne dongo yi toll ci jàng ñun dongo yi toll ci jàng yépp mën nañ cee jànge débat yi daal bu fekkoon yépp dana mel nii moom macha allah ñoo ngi koy rafetlu di siyaar ñépp nag sunu turandoor Serigne Moustapha Diop Yamoussoukro koro waaye ak bokk yépp rek ñoo ngi nuyu ñépp di siyaar ñépp daal di leen xamal ni ñoom leen di sant d leen gërëm di leen jaajëfal débat bi daal aw na yoon tege na ci yoon macha allah jasakumullahu xayran nuyu ñëpp siyaar ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa machum waqul jaa al xaqu wa sahaqa al batilu inna al kaana sahuqa ah, ñu ngi nuyu mbokk mi al oustaz Diop mii ci analyse yi nga xam ne dëgg-dëgg nag moo dëppook ak li war a mën a nekk ci ki nga xam ne tey moo doon aar Euh, waaye tam di surveiller ki nga xam ne ala kulli alin tey moo nekk sunu yonantu ba ñuy wax ne yonantu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam njëkk borom bi it di ko wax walaahu yaxsimu ko min annaas njëkk itam saxaaba yi doon wax ne ñoo doon ànd ak moom bu taxu doon ak abu talib mii nga xam ne moo di eh, bàyyi aliyin karramallahu wajha Eh, bu taxu doon ak Abu Talib ci yar gi nga xam ne yar na ko ba mu xëy mën a nekk ab yonant alayhi salaatu wasalaam ni ko noon mbooleem ku ñuy tuddi sahaaba du am ku muy gëm ndax bu fekkoon ne daf ko libéré teg ko ci loxo yi ñi nga xam ne ñoo di yéeféer gis nañ fi ay yonent yoo xam ne dañ leen a roy ñii ñu méttital leen su fekkoon ne it dafa nekk koo xam ne dafa ànd ak ñoom ci seenam ngëm-ngëm ni ko noonu dafay jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam libéré leen ko te bu boobaa it ci coobare doomu aadama lay doon waaye ci coobare doomu aadama lañ koy rey ni ko noonu tey saxaaba yooyu ñuy tudd ne ah def nañ loo xam ne Abu Talib defuñ ko damay wax ne ci gàncax Abu Talib ci lañ amee seen ngëm ci la diina taxawee ba lépp loo xam ne ala kulli tey ñu ngi koy ndamoo ci lislaam kon Abu Talib mën nañoo wax ne gàcce ngaalaama waaye itam jox ko mu am ak ngëm yóbbaale moo gën a ëpp ab yool moo gën a rafet ci xolob ab jullit mu koy xalaat euh, ñaareel ba itam euh, ni ma gisee léegi nit ñi di analyser ci wàllu xam-xam nga mel ni nga di seet aw nag saw nag dem ba ci digg àll ba fekk ko euh, fekk ko mu goor fekk ko mu goor ci biir ñax mu bari tooy tooy xep waaye nga fekk ko mu làpp lool nag xam naa question bi ngay jëkka laaj donte sa bopp nga àndal dangay wax ne nag wi lu ko jot ba mu làpp nii moo di tegtale ne xam-xam fees na tepp ci kaw suuf waaye nit ñi wólis nañu xam-xam dem ci taasub bu ñu gisee dëgg fenn sax duñu ko jël wala bu ñu gisee lu rafet duñu ko jël ngir par parlanto bokk na ci li nga xam ne tey moo tax eh, xam-xam dafa xaw a ràgg waaye xam-xam dafa xaw a tumarank ngir mbiram taasub par parlanto eh, diw daal jàllo la sant waaye man sàll sant moo tax lépp lu mu wax rek loola dama ciy xapp suuf waaye jox gëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo di ormal ki nga xam ne moo di Abu Talib waaye tam am njort ci moom it ne mu nga aljana waaye yenn analyse yi nga xam ne dégg naa ko am na ñuy wax ne laa ilaha illallah kefe ku ko wax dugg ci lislaam ñu ne wax na ko andi ay teg teg ko war nañ ko nangu bu fekkee dañ ne laa ilaha illallah ku ca yem doo am am iman te am ñu ne iman kat mu ngi matee ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaw kon loolu ci sunuy jamono euh, lañ koy gis waaye wax nañ ne sahaba yi am na ñoo xam ne aslamtu rek lañ daan wax waaye du leen tere nekk ci l'islam lan lañ ciy jàpp wala boog dañuy continuer di def taasub ndax samay téere yi ma sukkandiku lii lañ wax loolu rek laay gëm yeneen téere jàmbur la ma wax loola du ma ci sukkandiku ndax wérul wala boog dañuy topp téere tey bàyyi téere yi nga xam ne ñoo mag téere tey ala kulli alin loolu ay laaj la dëgg-dëgg daal Abu Talib eh, am ci yaakaar ci moom ne tuub na ba dem na aljana moo gën a eh, moo gën a jub lool waaye moo gën a rafet ci ab jullit muy xalaat ni yóbbaalewut ak ak ngëm